ñu ngi leen di nuyu di leen balu ax ci xaar bi euh, di leen massaw bu baax mais jamono bi moo tëdde noonu ñun ñëpp dañuy faral di nekk ci ay yite te bu mbooloo mi soxlaa ñun ñëpp ñoo war a solidaire rek fàtte suñu bopp te jiital mbooloo mi te wax dëgg yàlla yéen ñi fi teew ñëpp ak ñi fi bëggoon ñëw sax te am ngànt ñun ñëpp dañ leen di nangul loolu mais di leen masawu coono di leen jox nuyu bi gën tedd bu jullit man jox moromam te di leen dalal jàmm fii ci kër APEXI laata ñuy tàmbali liggéey bi dañ bëggoon jox rek tonton jaga Mactar ñu defal ñu ñaan ñu daal tàmbali liggéey bi bismillahi rahmaani rahim ñu jàng kenn ku ci ne ci ñun fatiha ak salaatu fatiha ñu ñaan yàlla ñu dugg ci liggéey bi ci bismillahi rahmaani rahim

comité communal pour la protection de l'enfant. comité communal Bobo, laata ñu installé C'est bu jàmm lay yof wàcc woon nañu ci terrain bi demoon nañu ci penc yëpp waxtaan ak comité de gestion yi ànd ci ak personne ressources yi nga xam ne délégué de quartier le la bàjjenu gox yi la relais yi nga xam ne ñëpp seen liggéey dafa yëngu lu jëm ci protection de l'enfant. enfant waxtaan ak waa penc mi xamal leen ñun pencum dakaru dafa am lu ñu yitteel mooy que nañ ne dëkk baa ngi soppeeku nañ ne parmi les problèmes de développement la protection de l'enfant dafa imposer boppam ñu xam ko wala ñu bañ ko xam ñu nangu ko wala ñu bañ ko nangu moo tax ñu daal day jokk dugg ci dëkk yi ñun ci pencum dakaru juróom nous gox lañu dali la Wakam ci la la mais la waaye bu ngeen gisee dëkk yooyu ma leen liimal ni ñu bindoo si cosaan ni ñu bindoo sa ña sos ni ñu bindoo ci at yi ñu am bokkuñu dafa am particularité boo xam ne ñun daf ñu ci daf ñu def daf ñu seppi ñu ne ko waa Wakaam ci biir loo boobu moo tax ñun buñ ciy dugg dafa am ni ñu ci war a duggee ni ñu ci war duggee mooy ñu bàyyi xel réalité yi nga xam ne mooy màndarga yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi suñ bëggee li ñuy def am mucc gu rafet moo tax boobu ba loolu xewee bàyyi nañu xel ne yoof dafa nekk dëkk cosaan boo xam ne bii làq na lu gën ko néew juróom benni siècle muy lan muy juróom benni téeméeri at gën ko néew làq na ko dëkk boobu cosaan am na fa ñu ne dëkk boobu dafa nekk foyer religieux parce que balaa yàgg dinañ jëm ci appel bi te wax dëgg yàlla ku wax yoof mënoo ko wax te doo bañ a mentionné que ne fi moy berceau de la confrérie layène lolu mandarga la mu nek dëkku diiné aussi dëkk bo xamné diiné l'islam fess na fi torop newna nga gis ku fi manifester ni ci kaw beneen diiné ñun ñep li ñu gëna nangu li ñu gëna xam te teg si suñu bëtt moy que fi dëkku diiné la ñu ne lolu benn mandarga ñu né aussi sur le plan social communautaire dafa am lu fi nek muy ay penchu cosaan ñu dem ba jamono ay ay penc yu bees ñëw dollo ko ci donc penc yooyu nekk réalité ñëpp nangu ko ñu ne Yoff aussi dafa am lu ñuy wax dynamisme associatif Yoff association yi ëpp na 200 ku ci nekk am na pàcc boo jël di ci yëngatu te mu nekk réalité bu wér yàggul dara rek dama naa représenté jàmmalaay Yoff fële ci benn jotaay pencum Ndakaaru ñu ñuy wax daara yi ma ne leen Yoff bu jëkkoon bari woon na ay daara yoo xam ne dañ daan jóge sa àll ba ñëw fii ñëw fii di fi di fi di fi di fi jàng si mu ngi am mais ñun bi ñu bi ñu bi ñu defee gëstu ñu ngi lay dal jàmm Issa am nañ ci juróom-ñaar mais juróom-ñaari daara yi boo seetloo xam nga fu mu ne ñii ñu ngi ci xur wi ñii ñu ngi ci Ouest Foire mais ci quartier traditionnel yi néew na léegi nga gis ci daara comme na mu daan mel bu jëkkoon nga xam ne dañuy jóge sa àll ba ñëw seet tabax bu yeggul ñu dëkk fa mais am na ay daara yu ne ci biir yoo xam ne seen i ña fay jàng ci dëkk bi la ñuy dëkk seen kër papa la ñuy fa la ñuy bu jàng jotee ñu dem jàng bu pare ñu dellu seen kër loolu xeetu daara la bu bees boo xam bi mu ngi nekk ci dëkk bi mais ñu ne leen bu lii daara yooyu daan sa àll bu ñëwee di màngaan si fi wàññi ko amna reality réalité bu bes bu fi am moy école de football yi am nañu pas moins de 13 écoles de football te école de football bu ci ne am na à peu près une trentaine de gosses boo xam ne bi ñu nga fa nekk di yëngatu xam nga loolu réalité locale la ubbëgg bi moo ko indi moo tax ñun dañuy bañ a rek toog tëju su benn nekk jàpp ne la woon moo fi nekk ba léegi moo tax ñuy def constamment benn aller retour di xool société bi fan la toll ci wàllu évolution école française yi nga xam ne moom moo fi ne établissement public yi wala privé ñoom it réalité lañ gis ngeen léegi population scolaire bu yof ni mu yokkoo loolu li ko waral mooy dañu toll ci contexte boo xam ne bi population yof dafa yokk na woon ak léegi bokkul population bi nga xam ne amuñu fukki at ak juróom seen ëpp ñu ngi constitué 30 pour cent de la population de yof cib lim toll nañ ci mille cinq cent 504 ñi nga xam ne seeni at dafa yées fukki at ak juróom boo ci bëggoon am idée nag mooy que ñooñu boo leen yóbboon Demba Diop ñu feese ko stade Demba Diop léeg-léeg day baax ñu jox nit ñi ay référents yoo xam ne ñu xam à peu près li ñuy wax parce que buñ la waxee chiffre bi ni mën na la bañ a poser problème mën na mën na la bañ a kii attirer mën na bañ a attirer sa attention mais ñooñu am fukki at ak juróom jëm suuf nekk yof nekkay xale soo leen yóbboon Demba Diop ñu feese ko. ñu ne ñii nga xam ne seeni at mu ngi nekk diggante ñaar fukki at ak juróom jëm suuf ñu ne ñooñu ñu ngi ci cinquante quatre mille huit cent soixante dix neuf loolu du ay caaxaan loolu feesal na stade yu mag yi da koy feesal mooy ñi nga xam ne seeni at góor ak jigéen mu ngi nekk ci euh, gën suufee ñaar fukki at ak juróom ñu ne ñooñu boo seetee ci biir vingt-huit mille yi neuf cent soixante-dix-huit yi ay jigéen lañu ñi ci nekk ay góor vingt-cinq mille neuf ñoo ci nekk ay góor xam nga loolu du caaxaan loolu mooy lim bi yokku na ba ñëpp gis ne yokk na waaye bi muy yokku dëkk bi yokkowul noonu lim bi yokk na bu baax mais màggaayu dëkk bi à part cité APEX màggewul noonu loolu li muy andi mooy dëkk bi day gën a xat ci biir bu ngeen seetee yenn heures yi boo doxee ci dëkk bi da ngay gis que ne dëkk bi dafa xat bu seddaay bi ñëwee sax lay tane parce que bu sedd bi ñëwee nit ñi danañ mën a fatu mais bu tàngaay ñëwee daanaka ñenn ñi ci bit la ñuy fanaan yow nag soo gisee xale bu ne ci mbedd mi ba une matin nga ne waaw xale bi xanaa yaayam gisu ko fekk yaayam yëg na ko mais nañu dëkke moo xat promiscuité bi dafa nekk réalité ba nga xam ne lu ñu gën a retardé tëdd bi moo gën xeetu suturaal sa bopp la fekk na boobu ndóol gi moo dugg te duñu dañu ñu bari mënuñu nangu ne ndóol am na ci dëkk bi parce que dañuy jàppe comme bu jëkkoon fekk jamono dox na ñu nekk ci contexte urbanisation Yoff village loolu jàll na féete na boor léegi Yoff ville la ñuy wax récemment dégg naa maire Yoff le ministre Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi def benn communication il a raison nekkatuñu village léegi ville lañu ville nag buñ ko waxee ci contexte urbanisation dafa am lu lu muy wundu urbanisation du dara lu parce que lu baax la ah, urbanisation du dara lu dul dëkk bi màgg na ci ab liim ñëkk dëkkee ñaar infrastructure ya laaj ci wàllu école wàllu santé wàllu culture domaine yépp ñu ngi fexe pour am ko ñu ñëpp gis nañu ne yoof jamono ya muy am benn tali muy tali balee dugg nangaañ dem gaaraas loolu benn jamono réalité la woon mais yoof boobu ak yoofu tey bi nii bokkul ñu ngi dem bay wax léegi pavage hmm? foofu la jamono toll c'est en fait yoof mooy dund mooy dund ak ville mooy dund ne man léegi ville ñu bëri nag duñ ci bàyyi xel parce que bu maire bi ñëwee lu ministre ne dafay pavé dëkk bi il faut ñu xam lan moo ne de lan moo ne ci gannaaw am na jamono yoo xam ne ay teen si lañ daan ay teen lañ daan duye di ci sangu di ci togg di ci fóot mais loolu léegi teen loolu daxu na ñu ngi ci beneen dimension bu jëkkoon am na jamono yoo xam ne ay édicule public fa la ñu ñu daan sangoo mais loolu gis ngeen ne ñu bari sax jël nañ seen édicule public ya ya ñu amoon transformé ko daf ko ay magasin parce que réalité boobu taxu na loolu yoof mooy jóge ci statut village di jëm ci statut ville lim bi dana yokk infrastructure dana yokk waaye nag dafa am beneen réalité boo xam ne bii moo ci ëpp solo te ñëri du ñu maari léeg-léeg duñ ci bàyyi xel xam nga mooy lan mooy évolution des modes de vie ni ñuy dundee tey kër goo dugg néeg boo dem am na télé te bu jëkkoon benn télé mooy am ci kër gi télé bi 18h lay tàkk 23h55 programme ba jeex te balaa 23h55 xale yi bu bu 21h30 jot ñep nelaw nañ ci kii bi room bi ñu fat leen yóbbu leen mais léegi ba 1h du matin da nga gis xale bu am 6 ans 7 ans di xool mel ni ku nekk ci 13h programme yi dafay daw 24 sur 24 yaay set bu la neex nga seetaan amul benn limite loolu nekk beneen réalité. ñu ne loolu technologie de l'information portable yi andil ñu réalité virtuelle ñu koy dund et ñun suñu référent ci kii boobu moy c'est l'Occident ñun ñep xolenté rek si jotay bi ni fi Occident feeñe commencé si man mi di wax li ma yoré portal ma yor même ni ma solo ciolu ciosan bi sax fexé nañ ba dinañ fexé ba duggal ci benn touche bo xam bi da fay renvoyer à l'Occident ki sama càmmañ gis ngeen ni mu solo etc etc lolu ñun duñ ci rendre compte c'est là où c'est intéressant moy que dinañ ko def ñun ñëpp jàpp nañ ne noonu la ñu war a def du kenn ku ñuy forcer ah mais ñun loolu mooy suñu référent parce que tubaab bi foofu dafa réussir mission am fexe na bëggam loo ñu ne lii gën moom moo ko yore d'ailleurs am na nooy comportement ci société bi boo sangoo ba set sol ba jekk ñu ne la tey da nga tubaabe lu baax sax léegi dañ ko jël askanele ko lii di société wu tubaab yi ça veut dire que quelque part ñun suñu référent toxu na li ñu maam bàyyi loon bàyyi nañ ko ba lu baax sax te pourtant suñuy maam ñoo si njëkk tubaab yi mais fexe nañ ba lu baax léegi buñ ñu koy askanale tubaab bi lañ koy askanele soo solo ba jekk ñu ne ah yow day tey da nga tubaab bi booy def lu baax booy xalaat lu baax boo say wax bu xawee kii sax ñu ne moom di ab tubaab la te pourtant boo gëstu woon cosaan di nga gis ne suñu maam yi amoon nañu valeur yu gën a raw loolu te pourtant mosuñoo dem Europe fii lañu nekkoon di di dund moo tax contexte urbanisation boobu au-delà l'aspect physique am na yu bëri yu muy sopp yoo xam ne malheureusement nag ñun duñ ci bàyyi xel alors loolu bu ñëwee te ñu nekk nag ci contexte de povreté parce que bu ñu jëlee suñu référence def ko ci tubaab bi te ñoom seen lépp dafa am njëkk tubaab bi li muy dunde lépp dafa am njëkk te ñun suñu maam li ñu bàyyi loon mooy nit ki société bi moo koy jël en charge mais bu dee ci tubaab bi lu ñu bokk bokk ndeeg bàyyi lu ñu jege jege lépp day am njëkk soo soxlaa lii dama lay wax ñaata lay jar alors que bu doon bu jëkkoon ci contexte traditionnel bi soo soxlaa rek dañuy jël ne lii yittewoo nga ko ñu jox la ko société bi moo lay jël en charge mais bu dee tubaab bi soo taxawee comme individu ne lii laa bëgg mu ne la lii nga bëgg lii lay jar bu ñu nekkee nag ci contexte pauvreté alors disparité yi dafay gën a feeñ bu disparité yi feeñee nag kër gi mënatul faj sa soxla léegi nooy def da ngay tuur ci mbedd mi loolu mooy indi ñenn ñi dañuy yàkkamti seen doom bu leen xawee kii sax ñu ne ko damal faw yi génneel ci biti su xale bi génnee lan lay dajal mbedd bi tali gis ngeen temps yi li ñuy dund ñun fii ay Yoff ak chantier bi am fële di oto autopont bi lu baax la day gën a moderniser dëkk bi dafay gën a rendre kii bi mais gis nga pour ñu def ko il faut ñu muñandi parce que dëkk bi dafa xat oto yi bari yi doon jàll dem parcelle wala Cambérène léegi fii la ñuy jaar ci biir dëkk bi ñenn ñi xamuñu dëkk bi xamuñu ne lii dëkk cosaan la ñenn ñi duñ ko tey ah mën nañu dem ci benn vitesse ba gaañ doomu aadama te duñu ko tey parce que xamuñu réalité bii loolu boo jegee ci loolu nga xool salle yi xale yi bu ñuy jàngi entre kër ga ak école ñaata jàdd la ñuy jàdd à l'aller comme au retour di dem ci ay salle di dem ci yoo xam ne seen papa du ko yëg seen yaay du ko yëg mais ñoom dañuy jàpp rek ne seen doom jàngi na du tayeef xale yi dañu xamul mbabi fut yaa ngi fi am na yu bari ñu ngi loué seen kër am fa ay machine yoo xam ne yi ay salle de jeu la léeg-léeg benn mag ñëw fekk benn xale yónni ko ne ko damal jouer ma PMU fële ci fa ñuy jouer moom dafa jàpp ne kii war na ko yónni mais li mu koy yónni gënul parce que la preuve xale bi su demoon ak âge am ne dama bëgg jouer PMU dañ koy dàq parce que atam mayu ko mu jouer loolu mais soo ko tàmmalee muy def loolu bés dana ñëw mu ne waa lii lan la bu ko lañ bu ko lañ bëtee ñu nekk lii day soo dugalee rek mën nga gañe ak jamono bi ñu toll nii nga xam ne léeg-léeg mën na xëy pàppam di ko jox lu mat pour mu ndékki wala yaay ji naka muñal ba añ tey ndékki mu xam ne loolu mën na ne mën naa dugal 200 wala mën naa dugal 100 francs gagné tentation ñëw mu daal di cay dem léeg-léeg magam jëmm yónni doomam ne ko demal ci diw nga ne ko mu may ma xaalis bu demee ñu jox ko bés xale bi mën na soxla ñëw ne ko sama yaay nee na nga may ko fekk yaay ji yebul ko bu boobaa f dugg ak daf loo xam ne lii ëllëg mën na ko jural musiba parce que su mag mag mu saay saay remarqué ne xale bii dafa bëgg xaalis mën na ko meeb ooj ko jaare ko foofu pour def ko li mu koy def boole fen ya mu ko booleel nag nga xam ne su màggeek moom maaro day yi parce que fen moom mooy bokk na ci yi nga xam ne dafay yàq dafay yàq société ñun nag am na lu ñu xaw a gàllankoor mooy que tant que daluñu dañuy foog ne loolu amul wala ñu foog ne keneen rek lay dal dañuy toog fu ñu toog rek ñu ne ah loolu waaw dégg naa ko ci rajo bi mais ñun duñu dal maanaam prévoir ñu ne mën nañu dal alors que ñun ñëpp ñun ñëpp mën nañu dal te bu la dalee fekk waajuloo woon sa bopp foofu dafay daal di metti moo tax nag ñun si pencum ndakaaru bi ñu waxtaanee suñu biir ñu ne ah danañu taxaw dëkk bi bi ñu interpellé ñu ne leen yoof dafa am nu mu tëddee may leen ñu ñu waxtaan suñu biir ñu daal day wër penc yëpp waxtaan ak ñi yore penc yi xool groupement yi ñu ràññee ci dëkk bi wax naa sànq école de football yi wax naa directeur d'école yi am na fi ay personne ressources ñoo xam ne ñii si seen formation moniteur des collectivités éducatives yi am na ñoo xam ne ñii dañu nekk ay responsable di jiite mbooloo di éduquer mbooloo am na ñoo xam ne ñii ñoom ñooy délégué de quartier yi délégué de quartier yi ñoom ñoo fi représenté état ci penc yi ah li ñu leen di miin lépp ak li ñuy familiariser ak ñoom yëpp dañ leen war a xoolee comme le représentant de l' état parce que ñoom ñoo fi teewal le ministre de l' intérieur le préfet le gouverneur le sous préfet dañul am tenue rek mais ñun noonu lañ leen war a xoolee drapeau boobu ñuy def seen kër loolu lay symboliser parce que ñun ñi ñëpp kenn amu ci drapeau sa kër et pourtant drapeau bi ñëpp ñoo ko moom mais lu tax ñu jël drapeau bi sampal leen ko seen kër loolu lay symboliser ne ñoom ñoo fi jëmmal état parce que président dafa mënu nekk fépp le sous préfet mënu nekk fépp moo tax d'ailleurs ba ni ñu leen di tànnee si kaw lay jóge wàcc ci suuf ñoom seen kii dafay ànd ak arrêté municipal ñun ñii ñëpp kenn amu ci loolu moo tax aussi ñu ne woon danañu profité ci kii bi pour yooyu ñu koy leeral ñu ànd ak ñoom délégué de quartier yi homme religieux yi ñii ne ci penc yi di ko saytu ñooñu gën a xam réalité yi ne ci penc yi am na bàjjenu gox yi am na conseillers municipaux yi ñoom it dañ leen fal ñu nekk gouvernance locale territoriale am na ñoo xam ne ñii dañuy yëngatu ci secteur yoo xam ne dafa sensible parce que yof, boo bëggee wax protection waxtaanu nañ ci ak ablay Seck fu mel ni quai de pêche ba y a des lieux symboles de protection de l'enfant xam nga quai de pêche ba jën yi day fay teer xaalis bi day dama xa ñëw léeg-léeg benn xale ne man ah xaaral dem géej fële boo fa demee bu la bu kenn jëndee jënam nga yenul ko ko mu neexal la ku su kenn bëggee jënd ndawal nga dugg ci géej gi xuus génn jàppal koy jën mu neexal la cet argent là bi nga xam ne dafay niru lu yomb mën na concurrencer mën na indi benn compétition ak école boo demee école buñ génnee récréation nga génne sa kufa xawma ma ndax kufa mu ngi am ba léegi nga génne sa kufa génne génne 200 génne 500 élève bi nga xam ne moom ci juróomi dërëm yi ko papaam di jox la yaakaar moom bu yàggee mën na ne waaw mais man ñu ngi ma jox juróomi dërëm alors que kii mu ngi génne ci kufaam téeméeri dërëm bu ko laajee foo ko jëlee mu ne ko lii boo demee géej rek c'est très facile donc environnement bi ñu nekk parfois mën na concurrencer suñu dispositif institutionnel bi ñu teg pour encadrer xale yi lu mel ni école wala élève bu waroon a ñëw dugg 8 heures école guddi gi mu dem géej ba biddanti du mën a ñëw à l'heure yooyu yëpp tey jii boo laajoon enseignant yi fi toog ku mel ni Mbaye Ndoye dana la gënal ay exemple yoo xam ne sax mooy gën a leer yi ma génn donc ci environnement boobu la ñu nekk ci nekkee nag on doit être extrêmement vigilant moo tax tey approche bi ñu jël mooy ñun ñi ñooy waxtaan suñu biir ñi fi toog ñëpp ñi fi toog ñëpp dañu am légitimité pour wax ci parce que koo si jël bu la waxoon parcours am rek nga xam ne am na lu muy représenté ci dëkk bi moo tax ñu ne woon nag tey dañuy daje fii waxtaan xool lii nga xam ne moom lañ jàpp ne ci quartier yi ak profil yi ñu wax nii ñoo war a dundal loolu ñuy wax les CQPE les comités de quartier pour la protection de l'enfant su demee ci commune bi nag alors ñooñu

mais peut-être bàjjenu gox yi am nañ clé boo xam ne ñu fa jaaree danañ ko mën def léeg-léeg kii nga xam ne mooy délégué de quartier bi mën nañu gunge kii jur doom fàtte ko déclaré daf ci ngénte le un million fàtte jël 100 francs dem fii ci état civil bi déclaré ko te ngénte la boo ko laajee mën a def naa ci 1 million ah coono bu dul jeex léeg-léeg sax ay bor topp topp ko ci mais jëtu la jël 100 francs dem fii ci état civil bi ci mambayam ñu déclaré doom ji ne kii juddu na di way papaam di way yaayam man loolu gisuma si ab coono mais boobaa kii ñàkkul am na lu mu ci mën xalaat bàjjenu gox bi ñàkkul am na lu mu ci mën xalaat bu ñu taataanee nag xalaat yooyu nga xam ne mën na nekk ay solution ci gàllankoor yooyu ñu wax ñu xool nag léegi lan xeeti action lañ mën a développer ci ci quartier yi pour que au moins même buy nekk ñaari action baax na ñu ne ñun waa Dagoudane bi ñu xoolee nii situation bi tëddee action yi ñaar la yoo xam ne ñun danañ ci bàyyi xel école de football bi feelu leen parce que ñii xale yooyu ma wax ne ñooy ne si ñoom temps bi ñuy def ak ñoom duñ ko def ak seen wéjur ñoom buñ jëloon benn xale si ñu encadré mën nañ ci génne loo xam ne papa ji ak yaay ji xamuñu ko moo tax ñu oo leen fii ñii nekk géej moo tax ñu oo leen fii naka noonu bu ko defee ñun ñëpp ñu daal di ànd ngeen baal ma j'étais un peu mais su ngeen gisee ma doxale nii dafa doon nekk genre rappel pour que bu ñu demee si atelier bi tey wax ji yéen la ñun dañuy gunge rek mais yéen halat, tengen doyloo seen xalaat te ngeen jàpp ne tey yéenay wax xalaatal dëkk bi yéenay waxal dëkk bi parce que lii bu ñu paree moom la ñuy tënk jàpp ne quartier yi fi nekk fii ci yoof jàpp nañ ne yoon yi bu ñu fa jaaree ah ànd ak kuréel yi nekk ci yoof ak personne ressource yi yaakaar nañ ne li ñu bëgg ci aar xale yi fii ci yoof danañu ko am bu ngeen gisee nag si sama ndejoor am nañ fi tonton Ndiaga Mactar Laye wax naa ko sànq dëkk bi dafa am ay symbol symbole yooyu bokk na ci que ne fii dëkku diine la moo tax ñu noonu danañ ko jox kàddu gi léegi mu am lu mu ñu dénk mu am lu mu ñu dénk bu ko defee su paree ku mel ni Issa aussi nekk le manager de la fédération pencum Ndakaaru dana am lu mu ci wax noo Issa mooy jëkk jël kàddu gi avant moom moom bu daal dee pare danañ moom su paree Issa danañ jox kàddu gi Issa Kébé Issa tey dañ ko dénk kàddu ñi nga xam ne ñooy délégué de quartier yi e c'est l'occasion vraiment ñuy dellu di ñaanalaat sunu papa Abdou Naar Ndoy yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana parce que il nous a beaucoup soutenu il nous vraiment góor gu dikk góor gu ñeme dëgg man daan naa jokkoo moom téléphone lu bëri li ma gën gënoon neex ci moom mooy ànd bi nal ñaar koy tënk bu la gisee nga teg act boo xam ne du noonu dina la oo téléphone ne la lii ànduma ci sans embâche jamono bii ku am loolu war nga ko téye sa fukki loxo ak juróom ku lay wax dëgg waaw man dañ daan diisoo mu ne ma aas lii de ànd naa ci waaye lii su ma sañoon ngeen defe nële te daawul tënk xam lu dara yit luñ daan def moo tax buñ tolloo fu mel nii quand dinañ ko ku ñaanal ko yàlla fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jógee te yàlla teg loxo si njaboot gi ngeen baal ma j'étais un lii daal moom la amoon don ko wax kon Isa, dama yéen am nañ formation bu am fële sa siège ba suñu relais yi ah ñi nga xam ne ñoo war a dem ci école yi ànd ak euh, enseignants yi mooy kit yooyu ñu joxe ci jamono mbay ñi ci école yi pour wax ak yi jamono bi may wax nii ñu ngi leen di defal fële ben formation ci euh, fédération bi fala la jóge doon ko lancé mu ne dana ñëw ànd ak ñun tey ci liggéey bi donc isa gannaaw bañ la jaajëfalee ñu ngi lay jox gi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk seen tur ak seen sant di si nuyu di si jiital tonton ah, eh, Ndiaga sànq waxtaan nañu bu baax ci lu bëri di nuyu président di nuyu eh, nit ku ci nekk ci titre bi nga ñëwee fii ak eh, sa si sa tur ak sa sant di rafetlu ni ñu taxawalee bés bi parce que euh, bi ñu ci waxtaan depuis des années dafa am très souvent bu ñu doon waxtaan fële niveau fédération benn approche bu président as euh, di am dafay wax ne Yoff dafa xaw a spécifique par rapport ak zone yenn yi donc lépp lu ñuy def ci yeneen zone yi nañu xool nous lañ ko contextualiser à pour que nous répondre aux réalités locales Nous avons euh, association pour que la protection de l'enfant ñu mën leen ci processus de bi dafa jël temps bu six mois six mois neuf mois nga Paris. mais on a fait pratiquement deux ans et demi parce qu'à chaque fois il faut être prudent rôle réalité accueil, contexte civil, la nuit contextualiser qui pour m'adapter adapter aux réalités locales Quand ci il faut que je me rappelle le processus bi nous la mise en place officiel du comité communal de protection de l'enfant de Yoff pour symbole vie comité vie comme c'est le maire qui préside. présider nous hôtel de ville bu Yoff ñu une cérémonie la presse était là et tout des discours après nous jëm ci formation des acteurs c'est-à-dire ñi nga avons représenter représenté seen gox yi leen yebal ñu former leen ci rôle et responsabilités. lan moo leen di xaar ndax li tax ma ci approche bi pré bi président As jël dans d'autres communautés nous avons ci gox bi ñan ñoy ci ay personnes ressources yo xamné ne mën nañu ñëw nous ñu am jot ñu mais mom daf non dafa am organisation bu am ba euh, comité yu donc comité basé parce que li ñuy wax euh, avons référentiel au niveau national c'est la stratégie nationale de protection de l'enfant loolu dafa am euh, document bu état au Sénégal tënk ne képp kuy liggéey ci la protection de l'enfant document bi liñu ci bind foofu ngay tegu mais moom daf ko daf ko jël mu adapté ko au réalité locale ñu ànd ci ak fii ñu installé ñu def formation des acteurs je me rappelle keroog fii lañ doon clôturer ñu ma ñëwee ci jour clôture ma ne bii mooy sixième

nous avons besoin de faire de la protection donc c'est des structures yoo xam ne dañ leen créer jour ba ñu le jour où nous avons des activités activité te alerté woon parce que la protection dafa un domaine qui xamante ne maintenu. Nous, dañ ko gis ci lu alors que du lu boo xoolee ci doxalin lii protection di wax yëpp boo gisee ni ñu organiser woon fii am na ay nit yu ko daan dox boo jëlee ma jël benn exemple ndaw ñëpp xam nañ ci quartier bu nekk ku for xale bu réer kan nga ko daan yóbbu protection de l'enfant wax na kan kan lañu ko war a yóbbul donc xale yu réer yi am na fu ñu leen daan yóbbu léegi protection bi daf lay wax légalement pour pour bañ a pour yoon bañ a dal sa kaw lan nga war a jaar pour xale bi boo ko di euh, tegee ci loxo nit suba euh, benn jafe-jafe ban la ci am donc je suis vraiment désolé malgré alerte bi malgré disposition yi ñu jël yépp malgré yoof processus bi mu jël yépp après affaire bi mel nii on vous le cache pas on était un peu déçu parce que yaakaaroon nañ ne ak yoof ci lañuy amé amee nag déclic loo xam dañ nan dem len jang yof ni ñu comme ça ngeen mëna corriger mais c'est ce qui s'est passé et ñun on était prêt euh, dañu paré won pour bu ngeen amé lépp lo xamné dafa laaj accompagnement ñun ñu mën leen accompagner pour jël en charge problème xalé yi li tax may gi may yaakaar ne peut-être bon ci atelier yi nag lañuy ñuy génne lu ko waral lu tax defe naa loolu mooy atelier bi lu tax euh, demul lu tax doxul ñun xamuñu mais comme ni ko président waxee sànq yéen am na nu ñu leen tànnee pour ngeen wax lu tax structure yi doxul parce que boo gisee bu ñuy def suñu planification maanaam bu ñuy tënk bu ñuy def ci këyit li ñu war a liggéey xam nga dafa am organisation yi ñaari approche yoo xam ne mooy am très souvent ñaari doxalin am na organisation yoo xam ne dañuy ñëw indil la ne la man damaa bëgg liggéey ci lii euh, bëgg naa leen cee jàppale loolu mooy l'approche par lof ñoom dañu lay indil ne ñun daal dañuy liggéey ci domaine bi bu ngeen bëggee yeen waa Yoff mën nañ leen indil liggéey ak yeen ci loolu loolu approche la mais am na approche par la demande ñu xam ne askan bi waa communauté bi si boppam ñoo gis ne lii dañu ko soxla mais ñu wuti ku leen ci jàppale ndax ñoom dañ ci euh, dañ ci wéet wala dañ ci ñàkk moyen ñun nag suñu liggéey depuis des années approche par la demande la lu ñuy liggéey lu nekk rek dafa fekk askan bi gis ko ne lu leen pour ñu leen d'ailleurs si bu ñuy décrire suñu ay liggéey dañuy wax accompagner des dynamiques dañuy accompagner ay dynamiques euh, nit ñi dañuy nekk ci dara pour nous dem protection de l'enfant

mais ma foi problème protection dafa am Yoff daa am Yoff donc mais le problème bu fekkee ne amna ñu ñew ne nañu ko jéem ci safara mais nañu ko jaaral ci li nga xam ne la état teunk ne fofu lañu wara war jaarale pour buñ ko waré wutal safara mais bu nit ñi deful dara day daal di xaw problème ba mu ngi fofu des président sans bu problèmes euh, problème yi c'est des problèmes qui existent à Nous Nous problème c'est sensible ça existe ailleurs. et c'est des problèmes de protection Je ne dirais pas qu'ils sont laissés à eux-mêmes mais dans le bi Desna. ci angle boo ko xoolee nag parfois taxawu bi dafay am lu mu ci lu mu basé wu loo xam ne ci wàllu nekkin comme économie mais parfois day ajowu ci wàllu ñàkk xam parce que parfois ñu woo ay nit di leen former nit ki nga wax mu ne ah man de lii xaw ma woon ne ni la mën blessé nit peut-être yéen ñi ñëpp ku ci nekk jaar nga ci sa ndaw muy ci école walla ci fenn fu la nit défé walla waxé dara lo xamné ne saa ko xalaatee rek mu am nu mu def ci yow et pourtant koku la ko doon def peut-être que xamul won né loolu mo lay def def na la li ba tay donc yooyu nit yi boo leen ci tàggat day tax ñu xam pas plus tard que la semaine passée formé nañu juróom fukki enseignant fii ci Yoff ci protection de l'enfant juróom fukk cinquante formé juróom fukk Wakaam def noonu Sébikotane def Guédiawaye def dalifo def Cambérène six fois cinquante du trois cents formé nous 300 enseignants dans le domaine de la protection de l'enfant ay jeunes ay femmes def naa seen atelier mois de novembre bi formé fille. Nous, ñun rek loolu la ñu mën yàlla dafa def comme mënuñu dindi nit ñi ci seen ay titres ak seen ay parce qu'on ne cherche pas à di am ay titre ak ay kii mais mënoo aussi yow rek nga ne dinaa soppi tey tey tey tey mbir bien que xam nañu ne ñun dañu engagé wu léegi ci li nga xam ne ci wàllu liggéey ci organisation développement moo gën a metti ñun dañu engagé wu ci li gën a metti parce que dañ daan def bu njëkk bi li nga xam ne moo gënoon a yomb yi gënoon a yomb mooy assistana yëkkati joxe dama soxla kaye am jëndal kaye joxe dama feebar am demal demal jëndi ordonnance dama bëgg a jàngi dinaa la fayal xaaj daan nañu def sax bu njëkk bu projet ñi xam projet jaamalaay daan nañ dem sax di distribuer ay nen ak ay soow di joxe ay blouson ak di joxe ay tissus

yow yaa koy yaay régleel sa bopp sa ay problème am na ay solution yu ñu indi lu mel ni avec damay bañ a wax montant yi faamu avec yi di denc si kees yi fii comme ça bu ñu demee sama tonton yi bu ñu ayee foofu ne ko yow kees ga demal indi ji la fa ne mais macha allah et pourtant bi ñuy commencé dañ ne woon man je vous dis ah des montants yoo xam bu mu la ko waxee fii bon maintenant le montant global suñu suñu six associations yi euh, entre 9 mois et 12 mois 792 millions épargne là wax 792 millions c'est au niveau des 600 wow, wow, wow, si si 792 yof pour pour ngeen baña dem 7 sama tante yek sama épargne ku nek que am

difficile Moi, changer comportement nit comportement. comme si je bëgg Mais par exemple Arambi, depuis 30 ans boyeo, dans da ngay lekk mais les médecins disent gis ne suis santé Je aram suba suba suba suba à partir de suba suba suba suba bul te aram xam ne bu lekkul ceeb yaramam ci boppam boo ko joxoon li gën a cher ceeb sax buggul donc day doon processus pour changer comportement nit ñi nag dafa am ñoo xam ne natt natt impactu changement de comportement boobu nag day daal nekk lu difficile ba dañuy defe ne yow li ngay def yëpp euh, créé wul benn changement parce bu ngeen xoolee enseignants yi ñuy former ci walu protection de l'enfant former nañ leen ci walu didactique de français et de mathématiques ak aussi sur l'APC approche par les compétences muy méthodologie yu bees yi ñuy jàngale ba paré xalé yi nga xamné seeni wajur ñoo leen di yor yaa ngi leen di former mais xalé dëkkul fenn fudul ci kër ak ci école ak ci ñi muy nekk di fowal donc boko boo ko tënkee ci fi muy nekk yëpp ña koy approché yëpp nga renforcer seen capacité yàlla mën na def peut-être nit ñi dinañu soppi ay comportement waaye kuy jaay service su xam-xam moom ah service su xam-xam ñi koy jaay ñëpp duñu bari client parfois <laughs> te aussi nit ñi nga xam ne dinañu nangu percevoir xam-xam bobu lan la indi comme changement parfois day euh, dañ ci am jafé jafé donc euh, loolu damay loolu day tax ma partager entre difficulté ou domaine biñu nek pour mën mu mën euh, dulier un peu li ma doon wax ne xaw nañu am tuuti déception bi ñu installé structure yi parce que fii ñu jëm dafa xaw a jafe te dafa xaw a sensible nit ñi peut-être pour nous comprendre dina xaw a du temps mais ñun paré nañu pour sensibiliser former communiquer def lepp lo xamné dina tax nit ñi sax bo moytuul ben moment ñoy daw en rythme bu xaw a ba ñu nañu def ndang parce que bi installé avec yi c'était la même chose quest mm-hmm. yoy biñ ko indi yoof association yeneen yi ñu ngi ci ay dizaine de caisse yoo fa mëntu am benn mu ñëwee président waa caisse lu may mu ne ma xaaral xaaral mu ne day communiquer ak waa kii pour nit ñi xam ni mu waxee ba nit yi xam ba pare ba ñetti ba juróom benn kees yi avec yi yoo fi commencé waa ji ñu affecté woon fii daf ma ne maa daan dem di wute ay nit mais léegi bu ma xëyee damay lonk samay tànk tekk ci kaw bureau bi list yi ni muy ñëwee yoof macha allah donc nit ki yof non la del nit ñi buñu amul confiance buñu comprendre do gis mais buñu comprendre après di nga gis ne dina am ben changement de comportement té amna naa ne changement yi dina am vraiment di leen remercier ci ki té xamné xam ne yi moy la structure au niveau opérationnel yeneen yi ñu créer yépp ay cadre d'échange la wala de suivi rek mais liggéey bi quartier bi vraiment l'année dernière on a fait beaucoup de formations on avait pensé que déclic bi dina mais perdre ñu espoir yakar ne nañu di euh, euh, déclic bi dina parce que ñi ñu gis fi bon ay nit lañ ñoo xam tam nañ leen di leen gis ci créer ay dynamique au niveau communautaire parce que profil yi xaw nañu xaw ñu bari di leen remercier di passe di jox di delloo kàddu gi ba ñu dugg ci euh, détail yu rôle et responsabilité yu membre structure yi incha allah merci président ah parce que au niveau de la fédération moom la ñu dénk kii boobu yëpp mu di ko manager euh, man day président wu yof nekk vice président ci fédération bi mën naa jàpp ne c'est mon conseiller numéro 1 lépp lu mu laa yëkkati foog ma diisoo ci ak moom maa ngi ko gërëm bu baax ci seen kanam parce que ku ñeme diisoo la te ñaari aussi wax na sànq lu am solo léeg-léeg dañuy yëkkati dara man ma gis ne lii su ma ci waxtaanee CA bi ma ne ah attention Yoff du Cambérène yoof du Yoff du Dalifort mi ñaari su ma ko ñaanee dans lay délais dana ma dolli délai boo xam ne bi dana ma may ñu mën a intégrer au mieux les réalités de Yoff donc Issa vraiment ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant te soulever nga laal nga vraiment lii taxoon ñu daje fi tey mooy le fait que s'occuper may fàttali rek ne ñun approche bi ñu amoon si CQP yi mooy penc mu ne am na comité de gestion dañ ne bu ñu ñëwee boo créé beneen comité à côté mën na indi approche dual. ñu ne nañ ko moytu ñu ne nañu seet ci comité comité de quartier boobu ñu créé benn commission ci biir. parce que bu ngeen seetee association li ko régir dañ ne bu ñu demee ba jëmmi jamono suñu jugé nécessaire ñu créer une commission wala ñu supprimer une commission mën nañ ko def bu ko defee du nekk en porte-à-faux avec l'existant te bu ngeen seetee yéen ñi toog fii ñëpp ay profil yoo xam ne yi bokkul ok mais avantage ma yéen ñëpp ku ci nekk am na penc yu ngeen jógee mun naa jël suñu mag Issa Kébé délégué de quartier la bu ndenaat mais am na bàjjen gox yu fi nekk ndenaat la dëkk nest pas sëy maa nga nel toog ndenaat lay sëy xam nga moom profil am ak profilu grand Issa bokkul mais ñoom ñaar tey fa ñuy daje seen réceptacle fa ñuy daje war fa opéra opérationnaliser li ñu fi jëlee mooy quartier wu commission ba waa comité de gestion bu ndenaat di créer ci biir comité de gestion ba foofu mooy nekk réceptacle bi nga xam ne li ñuy tënk fii yëpp ñu war ko appliquer foofu lañ koy appliquer si biir commission si biir comité de gestion nag bu bu bu option boobu lañ jëloon li ñu jëloon bañ rek mooy utal créer beneen comité ca penc ma te fekk am na comité de gestion boo xam ne bii lépp penc mi moom moo koy gérer

ci wàllu diine Yoff dëkku diine la dañ bëggoon mu ñaaxal ñu mbooloo mi laata ñuy def la pause mu mën retiré wu su ko defee ñu daal di dugg ci liggéey bi alors muy atelier bi. waaw ah, asalaamaaleykum mbooloo mi euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant aussi ci teewaay bi di sant ñi nga xam ne tey yii ñoo fa oote pour daje bi mu dégg daje ba boo xam ne bi aussi effectivement du tey lañ ko commencé c'est tout un processus. Nous avons vraiment duré plus d'une année à notre niveau comme ni mu ko depuis euh, début 2019 quelque chose comme ça té ñun ñu aussi ñun en tant que délégué de quartier nous nous su comme nous l'avons ko le suñu président Abdou Nar et vraiment dafa euh ndaje yo xamné vraiment daf ko daan toujours di si daan si indi une prestation boo xam ne bii vraiment day honorable au niveau euh, du com euh, de de l' association des délégués de quartier donc ñu ko siy fàttale ko bu baax aussi di ko ñaanalit comme ni ñu ko defee sànq waaw tey jii suma teewaay aussi xëy na peut-être euh, kii toog nii muy secretaire général mooy fi waroon toog moo suma kilifa si kuréel googu waaw waaye aussi xëy na doylu moo tax aussi ñu defe ko noonu donc ce ñuy wax que ne aussi vraiment li nga xam ne programme bi ngeen euh, stratégie nationale de protection de l'enfant nous, dañ comme nous ma koy le dernier maillon de la chaîne bi nga xam approcher la population c'est la plus lourde tâche parce que comme nous comme ni mu ko waxee isa léegi rek instance supérieure en passant par le euh, comité départemental le comité euh, communal di doog a egsi comité de quartier yi mais yooyu c'est des cartes de concertation effectivement waaye mu doon loo xam ne le aussi xeebuñu ko parce que si ñoom la ñuy mën a basé wu pour ñu mën wan vraiment stratégie yi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour arriver vraiment à notre mission donc loolu ñoom bu ñu joxul vraiment di nga xam ne moom la ñu war a def préparer ñu d'une certaine manière du ñu mën a arriver ci li nga xam ne mooy suñuy projet waaw donc ñu di leen si sant bu baax parce que comme ni mu ko waxee aussi depuis lors vraiment li ñu jox ci ay xam-xam li ñu jox ci ay tegtal jox ñu ci ay yoon jox ñu vraiment le manuel bi nga xam ne moom la ñu mën a war a liggéeyee aussi yooyu yëpp gis nañ ko effectivement lañ ci séntu woon il faut qu'on la vérité ñëwul comme nañ ko xaare woon waaw parce que bu ñu toogee fii tey jii aussi accepté wuñu lu ñu wax nii bu boobaa aussi duñu mën a rectifier li nga xam ne moom la ñu raté durant peut-être période boobu yëpp effectivement waroon na mën a nekk un déclic comme ni mu ñu ko waxee tout dernièrement fu ne jaar nañ fa mais yaakaar nañ ne au niveau de yow vraiment dinañ mujj a nekk vraiment euh, un modèle ba ñeneen ñi mën a xam ne au moins li nga xam ne peut-être attentes yi ñëwagul woon ci yi nga xam ne ñoo précédé suñuy rencontre ñu mën a basé si ñun nga xam ne au moins fi mu nekk nii model a ngi nii boo xam ne war nañ si mën a euh, topp donc loo yëpp aussi il faut qu'on accepte de porter ce chapeau là waaw war a commencé waat bu ñu rus loolu war a commencé waat vraiment li nga xam ne moom lañ ñu tegaloon le processus là waaw je dis encore une fois ñun c'est la dernière étape ak fu mu mënti doon ñun en tant que délégué quartier moom la ñuy wax aussi boo toogoon tey yii nii population yi bëgg jot maire rek mais duñ ko mën a jot mais ki nga xam ne moo ko fi toogal si moom la ñu mën a tàppe à tout moment pour ko jot waaw

donc dañ xam ne lépp loo xam ne waroon na ci euh, préparation à tous les niveaux ñun on a été déjà préparé waaw à tous les niveaux de telle sorte que li ñu xaaroon si ñun xëy na ñu ngi ko doon def mais administré wuñu ko wala manuel bi ñu joxoon dugal ñu ko si pour ñu xam ne kat ñun li ñu doon liggéey vraiment euh, am na fu mu féete ñi ko doon liggéeyloo gis nañ ko du ñu wax ne aussi liggéeyuñu peut-être ñu ngi doon liggéey mais c'était pas de la bonne manière waaw parce que il fallait que aussi ñun li nga doon liggéey mu am un compte rendu entre ñun ak ñi nga xam ne ñooy xaar liggéey boobu pour mën a dem wax lan la ñu liggéey à ce niveau là waaw effectivement xam nañ ce qui nous attendait yéen ñëpp yéen a ngi woon sur le terrain et vraiment li nga xam ne mooy euh, analyse wu as mais c'est très bien parce que def na travail d'approche boo xam ne bii xamal nañu rappeler nañu plutôt euh, Euh, li nga xam ne lépp moo tax aussi protection de l'enfant taxaw ak cadre yeeg niveau yëpp comme ñu mu ko kiiwee fii aussi je crois que lii euh, c'est pas une quantité par rapport aux assistants de ces réunions là mais jël na niveau yi nga xam ne yi nga xam et secteur yi nga xam aussi dañuy encadrer ay xale et ils sont ils sont prêts à avoir toutes sortes de de de problèmes yoo xam ne yi xale ñu ngi daje ak loolu waaw donc li war na mën a doy donc li fi est aussi ñun à notre niveau si li nga préparé yu je reviens encore dire que na mu waroon a je vous donne un exemple pour la protection de l'enfant koñ am si xale boo xam daf ko tous les jours ñu wax j'avais préparé le document, tout ça, mais bon, aussi, Somenako, moi aussi, il m'a supplié que non, vraiment, l'ol d'autres amati, parce que bon, il tout ce qu'il fallait, bon, on a indiqué aussi pour len, mais entre-temps, vraiment, Pabi, euh, vraiment, il a rectifié son tir, bon, il s'est réorganisé, bon, ni dal, C'est tout juste un exemple parmi tant d'autres. am avons xam ay xale yu vraiment un problème la mais nous avons ko régler en fait mais peut-être dafay dajé ak nit ñoo xamné xeyna xamuñu ils ont pas été saisis xamuñu né instance bobu amna donc lolu c'est ay euh, ay manquement la suñu côté nañ ko nangu waaw parce que il fallait que tout le monde sache que instance bi mu ngi fi li moo ko fi téye lii moo tax ñuy liggéey bu boobaa ku am lu mel nonu mu war ko indi comme ça ñu liggéey ci yoy amna donc ay xale yu ak quelque chose comme ça bu boobaa ñom dinañ ko lijjanti d'une autre manière il y a une fois boo xam bi aussi j'ai été jusqu'à presque euh, côté waraar yooyu ah li lijjante xalé yu réer yo xamné yi finalement retrouver nañ seen parents mais quand même administration bi lañuy wax li nga xam bu boba nañ xamné kat liñ tegoon suñu loxo liggéey nañ ko waaw donc il faudra que ñu continuer liggéey fofu comme niko As waxé parce que euh, liggéey bi aussi ci dëkk bi amna évolution sinon porte d'évolution euh, plus rapide au les comités de gestion et les quartier parce que beaucoup de domaine bi intervenir comme ça Dans toujours bon le comité de gestion dans un quartier bon c'est une pyramide et bon il y a le président mais tous les domaines ou bien dans tous les secteurs d'activité yi nga de tous les tous les secteurs d'activité sont représentés dans ce comité de gestion là alors donc a un problème ah, donc comme on dit, wax amna na commission bo xandi mo mo mo gérer lolu gère bu boba aussi comme vous avez été vraiment surpris effectivement c'est vrai bu de ne pas entendre dire que écoute ñëw leen defal ma telle activité suma quartier ak yu démé nonu yoy aussi waroon nañ ko mëna def au niveau des comités de de gestion yeen li ngeen ci war ngeen ngeen def ko ci ñëw assister tout ce qu'il vous faudra ngeen def ko mais là je trouve que effectivement il faut que ñu accepter na manquement am na waaw parce que duñu ko teg ci seen kaw parce que on a été bien préparé tout ce qu'il nous fallait vraiment tegoon nañ ko si suñu loxo waaw donc euh, vraiment dañ leen di euh, jéggalu si loolu effectivement parce que attente yi du woon loolu am attente yi du woon loolu quoi pour ñëpp dégg ko au même titre et que ñu jéem a xoolaat daal nu ñu jóge toogaat ko xoolaat nan la ñuy euh, préparé li nga xam ne vraiment du mën a une prochaine étape duñu loo xam ne dañuy continuer suñu yoon si si si yeneen yu base yu gën a leer base yu gën a leer duma ko teg ci li ngeen xam ne moom ngeen ñu jox non li ngeen ñu tegal dafa leer dafa leer nañ si yoon ngeen ñu tegal xëy na fa ngeen doon xaare vraiment suñu suñuy prestation dafa egsiwul foofu c'est-à-dire dañu jaarul xëy na peut-être si yoon nga xam ne moo ci waroon ko donc loolu daal laal na woon vraiment dinaa ko si wax et di leen remercier au nom des délégués de quartier effectivement aussi li ngeen ci wax loolu la ñun la ñu représenté xam nañ ko waaw te xam nañ coono yi nga xam ne aussi moom la ñuy daj comme je venais de vous le amul nit ku war a mën a tàppe au plus haut niveau que nu vraiment am ko directement si ñun la ñuy jaar waaw te ñun suñuy bunta tëjuñu ko waaw donc dañuy renouveler vraiment euh, suñu disponibilité vraiment par rapport vraiment à cette association la et que lépp lu ñu ci man rek vraiment euh, on sera toujours là pour def ko et eh, dañ leen di vraiment di leen di leen euh, di leen ñaaxaat quoi ne seen liggéey aussi xeebuñu ko xeebuñu ko et xeebu leen ñu parce que à chaque fois que ngeen organiser lu mel nii aussi vous nous tendez le bras et ñun on sera toujours prêt à vous accompagner ok merci beaucoup. suñu tonton Ndiaye Diagne euh, délégué de quartier ñun xam nañ seen place moo tax diisoo bi ñuy def ak yéen ànd ci ak institution municipale bi toujours ñu koy béral ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. di renouveler suñu njaal suñu ñaan ci Pape Abdou waaye aussi suñu ñaan mu jëm ci doyen Oumar Sarr bu Cambérène parce que moom it yàlla dafa def vraiment am na footballeur yu bari fii Ayof génération ñoom grand Issa war nañ ko xam li mu def ci Cambérène daf ko ci ñaay bu Pikine daf ko ci SIB mu tudd Sonacos léegi daf ko ci compagnie sucrière au Sénégal ñi allons suivre football Sénégal daf ko ci équipe nationale bu football dans les années 80 donc bu fi ñoom euh, Mandione toogee ñoom Claude dañ leen koy jàll parce que mon référence la woon au Sénégal L'idée tax na ma def dañu daan daje moom fii ci salle bi defandoo ay formation te ñaar yi fu ñu ma saan daje wala siège bi fële biñ ma ba mu xam ne Yoff laa dëkk fu mu ma gisee rek kii la may jëkk a laaj Issa ba récemment bi ma yëgee ne ay rafet yooyu ñu ngi kii ma ne leen da koy approché mu nekkoon ku laawoon biir ci xam-xamam c'était une référence dafa am ñoo xam ne ñi yàlla moo leen bind ñu discret mais ñi ma féete mag ak samay morom xam nañ bu baax li may wax position bi mu amoon ci Sénégal depuis jamono ñoom auto officer

mu am lu mu ñu dénk ñun ñëpp même sànq Issa li mu wax man ànduma ci bi mu nee ñu ngi jégalu déedéet en réalité ñun ñëpp ñoo sumbandoo am faute ñu fete fete ba sonn mais ñu gis ne am na yëre yoo xam ne ci biir sumba bi dese naa set ñu ne nañ ko sumbaat donc ñun ñëpp ñooy sumbaat ah ñun ñëpp ñoo koy bokk la responsabilité elle est partagée ñun waayoof ñoo teg dara gis ne dese naa jàkk ñu ootewaat suñu biir ne nañ ko xoolaat ñun ñëpp ñu nurandoo xool ba xam lii baaxul alors yàlla nañu yàlla may wan wan yoon te am nañ ci yaakaar parce que ñii ñu toog nii ñii ñu toogal fii ku ci nekk daña tànn ci qualité nga fi toogee waaye liñ ñu lay tànn ci qualité yëpp nag am na fooy yeewoo ñu bëgg nag nga jël sa qualité boobu nga mettre ko au service du quartier ñoo yore comité de gestion yi bu ñu paree danañ leen tënkal ne leen ah yenn de yéen a yore comité de gestion yi mais waxtaan nañu ak lenn ci biir ñi nga xam ne ñoo yore dëkk bi di doxal wàllu protection lii la ñu yaakaar ne bu ngeen ko dugalee ci commission bay saytu wàllu protection sa penc ma ah am nañ yaakaar ne ñu lëkkaloog jàmmalaay yoof pencum ndakaaru maire bu yoof si ak kuréelu mag yi fi nekk yëpp mën nañ am yaakaar yoon feeñ ko donc tonton ñu ngi lay jox kàddu rahim alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala seydina muhammadin wa salim ñu ngi am mbégte mu rëy rëy rëy rëy ji ñëw ci jataay bu mel nii pencum ndakaaru euh, jàmmalaay yoof di sant bu baax a baax a baax a baax euh, kilifa yi nga xam ne ñoom ñooñu invité ci mbir mi euh, as Issa mu ngi leen sant bu baax a baax a baax yoof nag dafa nekk benn bopp kilifa yi kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa yëpp benn bopp rekk lañu ci biir benn bopp googu euh, kenn ku ci jóg di wax rekk mën nga yóbbaale ñëpp ci noonu ci présent su suñu mag Njaay Jaañ ak isaa Kébé ñi nga xam ne yàlla dénk na leen ay responsabilité ci dëkk bi ci seen tur ci turu borom euh, ndomb tànk yëpp ci turu imaam yëpp ci turu euh, xalifa bi ñu ngi leen di dalal jàmm bu baax a baax a baax a baax ci dëkk bi ak ci euh, kër gi nga xam ni mooy kër APECSY yalla dogal mu am taxaway bu ràññeeku ci wàll yépp ci dëkk bi euh, li nga xam ne moom ngeen moom la ñu euh, xalaat pour liggéey si dafa nekk chantier boo xam ne bu rëy la protection de l'enfance comité pour la protection de l'enfance

besoin d'assistance, besoin d'encadrement, besoin d'éducation, euh, besoin euh, de, de, logement, de nourriture. yooyu de dafay la jàppale leen si jàppale si it seen waajur yi ngeen xam ne ñoo taxaw taxawaay boobu ak seen famille euh, loolu moo tax euh, kilifa yi nga xam ne ñoo fi fait kilifa dina yëpp foo ci dem ci Sénégal Euh, itte bu rëy la ñu jox yar ak njàngale xale fii ci Yoff euh, Seydina Limaamu mi nga xam ne moom la fi yàlla samp ci wàllu diine itteem yu bare bare bare bari euh, indi na ko wane ko jàngale ko ci ci nu ñuy taxawoo xale ak ni ñu leen di encadrer ak ni ñu leen di yore ci biir njàngale mi wax na ci xutbaam ne euh, xam-xam bii nga xam ne moom la ñu war a jëkk itewoo ci jokk xale bi pour mu orienté wu ci àddina xam-xam boobu ngëm yàlla gu mat moo koy lal mooy tawxiit bu bu àndul ak moom du dem loolu jàngal lañu ko muy jàngale boo xam ne bi Euh, ràññeeku na ci ay xutbaam ba pare mu teg si ne itam ni ngeen leen di dimbalee mooy tawxiit boobu ngeen tel ko saxal ci seen bopp ñu koy dunde ngeen ñu xam ne fépp foo xam ne fii ñu nga fa ak lépp loo xam ne lii ñu nga koy def yàlla nga leen di gis su boobaa danañu xam fan la ñuy teg seen tànk su boobaa danañu lépp loo xam ne liy baaxu safaan la buñ ko bëggee def danañ ko moytu ah respons te leen responsabiliser ñuy dem ci jàkka ji te leen responsabiliser ci lépp loo xam ne lii dafay dundal diine di dox ak bokk mu xéer ñu si société baa ngi ñëw nit ñaa ngi ñëw yaatal leen saxet yi ñi nga xam ne dañuy ñëw fii nañu leen jël def leen ni suñu bopp ndax ñun ñëpp ay jullit lañu wala boog ñu ne ñoo xam ni ñi ay wëy gëm lañ yàlla lañu ndax itam dëkk bi noog suñu mbokk chrétiens yi ñoo ko bokk loolu la yàlla dogal su ko defee suñu responsabilité mooy di def lu rafet ak di wax lu rafet di ko jëme ci ñoom yooyu yëpp ñu bokk benn nekk benn askan wi mu jàngal nu nag yooyu bu fekkente ni am na nañu nañu booloo tënku ci diine ji nga xam ne Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moo nu ko indil ah, ñu lépp loo xam ne lii jàngale nañ ko jàngale bu rafet ñu nekk si ah, di ko dundal di ci taxaw ci saasu ne loolu danay feeñ ci niñ leen di yare ci daayira yi dana feeñ également ci nu ñuy nekkee ci kër yi Euh, loolu dana leen dimbali ci fépp foo xam ne fii ñu nga fa danañu fa mën a nekk ci jàmm nekk ci nag da bëggante na ngeen dimbalante na ngeen yërëmante te na ngeen nëbbalante ay ayib su ko defee di ngeen dund dund gu neex bon boole ci nag di roy jikko yu rafet yi nga xam ne modèle bi nga xam ne Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moy moodalu julit yëpp té de ci lu mu wone ci jàngale rafet lool ba nga xam ne euh, mu référence universelle modèle boobu ñu jikko yi ñu ñu ñu jël ko di ko di ko mu nekk aw di di besoin protection comme ni may waxee Euh, as wax na Issa wax na ci Sacré dugg gën ba ci ay détails yenn yi ci ni ñuy réeree man yàlla dafa def benn xale bu réer ci benn exemple boobu lay jël ci laa xamee xale yi difficulté yi ñu nekkee dafa réer ñëw suma kër ma jël ko euh, ñu toppatoo ko ni mu waree

ñuy dundal diine ak ñuy dunde diine xam nga loolu foo taxaw ci diine di leen mën a ràññee mais noonu nag la amee sëriñu daara buy dunde buy dun buy dunde daara buy dundal daara ak buy dunde daara am na ci seen biir foo fekk daara joo xam ne ji mu ngay sooxe ci wàllu yor xam sëriñ ba fa ne

itam euh, agression yi nga xam ne am na jëme ko ci ñoom à plusieurs niveaux yooyu également taxaw war na ñu taxaw si dimbali leen si jàppale leen si ñu leen di bàyyi ñuy erré nit ñi di leen jàppale di leen def loolu loo xam ni lii euh, moral nangu ko bon te yooyu yëpp ñàkk pexe moo koy indi bon loolu nag moo tax ba nga xam ne jataay bu mel nii euh, bu lu rëy la man ba ma aas waxee mbir mi ni muy demee ci saasi laa ko tontu nekk lu ma jàpp danaa ko bàyyi ñëw si parce que suma lépp suma jëmm ma xalaat ak suma doole lépp danaa ko ci mën a def pour protection boobu mën a am pour protection boobu euh, mën na nekk loo xam ne lii l'opérationnel les lay parce que couche le bu vulnérable te couche le boo xam bi, bii fondement aux société bi parce que boy tabax. Mam, du solo lu bari wala vraiment accoutrement qui reste à désirer yooyu ñu kii ko xale yi ñoo xamné ne ce sont des enfants non déclarés waxtu yi ñuy wax ak yeen amna ci xalé bo xamné bi classe CM2 la nekk. dañu naan malaa malade absence këyit ko teree def moo xam naa ne moo koy teree def examen parce que dal na directeur daaw mu sonn si si ñetti kaa ba ñetti xale yooyu mujj ñu def examen dem ba CM2 donc ak yeneen ak yeneen pour bañ a monopoliser la parole maa ngi jéggalu bu baax ah. Euh, di kontaan li ma fi ñëwee di remercier As ci li ma boolee ci boppam parce que lu mu def rek dugal ma ci. Euh, euh, sëñ bi wax na lépp yaatal na yëpp man damay ñëw ci ñaari points yi rek. Euh, li ma gën intéressé moy femme bi jógoon sank wax ci atelier 1 bi motivation bobu pour les enfants euh, ma bëgg ci tontu rek rapidement defuñu motivation pour les enfants biñ koy def diko wax c'était pour dajale les acteurs mag ñi nga xamné dañ leen ni wo te amatuñ cawarte pour ñëw ci ay té débat pour tek ay stratégie sur la protection de l'enfance ñooñu suñu ñëwé da nga gis ko ci wo mu la ay nan ataay yobuma fa amna leneen lu mais si amé motivation quand on parlait de motivation sax waxuñu won sax aspect pécuniaire bi c'est que on avait dit seulement motivation mais si amé aspect pécuniaire manam xaalis bi fay joxe transport khairun mais amna yeneen source de motivation ñun bi ñuy wax ci atelier 1 bi loolu la ñu foofu la ñu mais xalé bi kenn du ko tàmmal xaalis soko ko joxee yaroko donc ñun dama bëggoon rek mu leer bi ñuy wax motivation waxuñu woon jël yëkkati xaalis jox ko xale loolu laa ci amoon lu may tontu euh, ci question boobu beneen bi am na keneen ku wax euh, les re ñun dañu wax les relais de plage mu waxoon ci maîtres nageurs yi mais des relais de plage mun na bañ a nekk maîtres nageurs yi comme mun na nekk maîtres nageurs yi mais il faut que ñu def ay formation pour créer loolu la ñu wax proposition la des relais de plage parce que yof dafa am réalité yof ku wax yof wax te xalé mom dëkk yof te demul man kon donc comme par force day dem ñu ba su démé mu am ku koy am kuy waxtaan ak mom am ku limité manam formation des su féké am ñu créer ñu ñu ñu créer relais de plage ñaari point yoyu la amul lu wax mais juste rek pour contribution ci handicapé yi euh, loolu dama koy dénk président que il faut que ngeen def réflexion spéciale pour les enfants handicapés sen sen sen nekkin manam école yi féké amuñu euh nu mu tuddi sax euh, accès accessibilité ci pour dem ci école bi ñu créer manam fu tabax rek ñu fexé ñu défal len ben rampe bo xamné si amé chaise roulante dinañ fa jaar yoon boo xam ne suñ yoree beeki dinañ fa jaar mais suñ leen bàyyee gandus dina metti ci ñoom suñ leen bàyyee yenn euh, gravats dina ci kon donc loolu pour fexe ba école bu mu am spécial pour chaise roulante ci ci école accessibilité ci éducation pour bañ parce que euh, wax nañ di euh, di wax rek ne lu waru fi parce que li moy solutionné sunu askan ah rahim. Louange à Allah. Nous le louons, implorons son secours, demandons son pardon. Nous repentons envers lui et cessons sa protection contre le mal de nos âmes ainsi que contre les méfaits de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut égarer. Celui qu'il égare n'a personne pour le guider. J'adresse qu'il n'y a point de divinité, d'interaction d'Allah qui est unique et sans associé. C'est ce que Sayyidina Mohamed et son serviteur et messager. Que la paix, la miséricorde, les bénédictions de Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis sur le droit chemin. gannaaw ba uboko ubba ko sama turu borom ndax ñun ñëpp moo ñu boole moom ngay ndaw di paa di xale di jigéen di donc suñu borom moo ñu donc gannaaw bu ñu ubba ko man mangi ngi présenté wu maître ngi Ibrahim Ibrahima Ibrahim Silla nak ndaw la bu dekk yof di yëngu ci walum liñ nane naan entrepreneuriat casquette yi ma fi ñëwee bari na mais nous fi en tant que ndaw entrepreneuriat buñ ko waxe moy ndaw buy sabablu sabablu nak dafa am ay tool da man dëkk si tool yi xam-xam lay bay mais xam-xam bu jëm ci mbirum ndaw yi parce que suma may spécialité euh, damay bàyyi su ma doyen du ma bàyyi ma li nane environnement mais quel type d'environnement l'environnement c'est un mot polysémique buñ ko waxe manam environnement dafa bëri manière man limay spécialisé wu moy environnement marin à environnement de l'enfant lolo waral man ma ngi liggéey ci ay kuréel international damay teunk rek ben buñ nane World Vision Walf Vision man maa nekk li naan seen panéliste ki nga xam ne moom lañuy ñuy yabal si askan wi mais si ay moromi ndawam si autorité pour mu waxtaan ak ñoom ñuy jariñ mais du yam rek si waxtaan dañuy waxtaan ba pare jëfe parce que balaa ngaa jëf fa nga xam lan nga war a jëf waaw looloo tax waxtaan am solo te loolu ndëg si loolu laay introduire moo ñu fi dajale ñu naan pincum ndakaaru ñëw tey si biñ naan si pénc mi parce que yof bu ñu appeeg si xam ne pénc la waaw yàlla dogal nag pénc buñ ko waxee ah, gis ay paa waaw pénc buñ ko waxee nag gis ay ndaw waaye penc buñ ko waxee rek kon paaye ka dekk ah ndaw yi waaye paay nekkoon nañ ay ndaw waa kon nag paay li tax ñu oo leen si penc mi dañ de rek dafa am problème bu xew maanaam mbir ndaw ñi ndax ñoom ñoo jiitu ndaw ñi si ndaw moo tax ñu dajale ak ndaw bu tudd Ibrahima Silla si ñoom moo tax kaddu yi du kaddu gi xam-xam mais kaddu taataan la en tant que ndaw dafa ñëw ndax si baatab xam-xam mu ngi lay wax ne xam-xam mag mi day xam xale bi xam ngeen boole ko muy xam-xam donc Ibrahima Sylla dafa ñëw en tant que ndaw représenté ndaw yoof pour ñu wax ndëkk si pénc mi lan mooy problème mu xale yi waaye kuréel bu ñu naan péncum Dakar moo ñu dajale tey si kër APEX euh, bi waxtaan wi jógee ndëkk yàlla dogal ay laaj am fi mais man laaj bi yi may dugga mooy dafa am loo xam ne xale yi moom lañ réere parce que lu tax ma jekka si pour wax ka dama bokk si xale yooyu mooy nun naan le sujet tabou tabu moo jommal xale yi en ce moment à parce que xamuñu kan lañ war a laaj boo ne imam ba na laay doxaanee mu ne la waay ba ma waxam doxaan waay te ah, yàlla waxam doxaan si si téere ba du doxaan de dox ànda kan nga war àndal wax na la nan ngay tànnee sa soxna kon doxaan aayul tabu lu tax ma jëlee ko foofu parce que waajur wi li tax mu meñña doom ji dafa dox ànd yi soxna sa jigéen sa muy sama yaay bu jigéen su ma ko jëlee si la sama papa daxa dox àndi kiñ naan ay set guy ay ay dëgëy mu meñña ma muy Ousmane Sylla donc ku aayul donc tabu foog ñu lever ko parce que li tax ma duggee noonu dama leen bëgg diine bi mooy téere ba tedd boobu sama borom nëbbul dara mbir yonente bi donc konte yonente bi moo gën ñëpp donc dama ne mbiri penc mi nañ ko waxtaanee waaye nag yàlla ne ne bañ koy waxtaanee si tabu bi ne na wax dëgg baax na lool mais waxinu moo ëpp solo français yi ne ne dire la vérité c'est bien mais la manière de dire la vérité c'est encore mieux donc tabu bi mooy yàlla dafa dogal xale bi dañ naan dafa jóge si zéro ba six ans loolu lañ naan la petite enfance xamul dara loolu ñun ñëpp jaar nañ si nga doon pas am 100 ans lépp jaar nga si nga am 100 ans am nga 0 ba 6 ans donc ñun ay ndaw lañ donc bu ñu ñëwee 0 à 6 ans l'orientation ça c'est l'environnement familial l'environnement direct mooy kan ay parce que yaa meñña tool biñ naan ak doom nga jur que mais boo meññee ji gerte di ko arrosé pour mu yow orienté ni nga moo tax ñu ne ma wax ma kan mooy sa waajur ma wax la yaay kan donc olof eh, waxantuwul rek ah sanga bi man may fier nga ne doomu Ousmane Sylla bëgg a sañse yaru tey waaw waaw macha ma dama ne xam nga foog ñu wax ka gis ngeen sa keeba ñu rey fa nit ah sanga bi ah man est ce que bañ ne doomu Ousmane Sylla moo rey dañ ne parce que lu tax doxuñu si dañ ne dañ fesal ñi nga xam ne ñuy jariñ dëkk bi tant ñu ñuy nëbb ñu fësal nii nga xam ne duñ jariñ dëkk bi waaye xale yi nag dañuy foog ne ñooñu nag ñoo war a joroy moo tax dañ ma ne ngistal daxa am mais ngistal ba baax ah sanga bi dañ waxataan ak gars yi waaye ma maa ngi jéggalu si kàddu yi boo gisee góor jigéen bu mu bari si dëkk bi ñun ñoo la fësal góor jigéen yi waaye moo tax ñu ngi leen di publicité léegi xale yi dañuy def ne loolu la baax la waaye lu tax duñu wane ne ay papa as am na fi man maa ngi fàttaliku maa ngi jéggalu si kàddu gi maa ngi waxee passionnément parce que en tant que xale mënoon naa waxee en tant que beneen mais tey dama ñëw en tant que communication xale maanaam ndaw bi wax man ba may fàttaliku rek anecdote dama am bac waaye ma defee ne man téye naa àdduna pour man am naa xam-xam pour man tekki naa parce que pour man matal naa ndekete maa ngi soog a tàmbali sama waajur ne ma kañ dem ndakaaru ma jëndal la kon te da nga bëgg ay yére ay waaw parce que yàlla dafa dogal yonente bi moo ne la baax yëpp jullit yee si gën a yaay waaw waaw moo tax man moom sànga bi baye boobu ma doon benn bière waaye dina set xeeñ parfum waaw donc loolu pour wax leen ne li tax ma ñëw si loolu mooy bi ma amee bac sama waajur may doxantoox moom ñu ndakaaru ñu dajee kuñ naan papa as papa as moom mooy ki ngeen toogal nii mu nekk APEX may bonde si oto bi man naan kan père tegal way man moom saa saa yi waay yow de anama lu mu bëgg nga defal ma ka nan dem léegi papa As ñëw rek au lieu moom mu nekk ki am na bac maa ngi naa xaar papa As félicité mu ne ma waaye félicitation mu ne ma hey jeune homme yaa ngee soog a tàmbali xamoo dara ma nekk waaye mais kii moo la kan dans ma tête quoi ma xoolal kii yàq na ambiance bi yëpp quoi léegi ma papa ne ma xoola royal kii mais ba tey rëccu ma parce que sa papa xam ne ne bi nga amee zéro ba six ans mu ngi sa wet naan laan defeel nii ah 7 ba 14 moo yaay ji ñu ngi góorgóorlu dugal la mais xam na ne yaa ngi 14 ba 24 ans am nga sa bag mais am na fooy waat mooy yaa ngi dugg si école bu rëy ba àdduna nag parce que ñetti école bu ñu la si waajalee foog nga am nag royukaay ndax waajur du chaque jour lay jige doom waaye mu ne la nag amoo benn waajur ndax koo gis am na ku mu jur kon ñëpp ay waajur lañ donc xale bi sax waajur la ndax dafa war a juri donc mag ñi foog ñu jox cër ndaw ñi nekkin bi neex tabu ñu lëvëk mais bu dee penc mi dañ fa toog joxuñu kàddu ndaw ñi ah te ndaw ñi yéen mag ñooñu daa ngeen nekk xale naan waa dañu war a boole si penc mi ngeen màgg ne noonu ñi ay ndaw lañ waa fa lañ jëm kon war nag yoof la ko mën a defar mooy nañ ko pencoo donc message bi may lancé kilifa dëkk bi ah laay mataar kilifa ngeen de waaye nekkoon ngeen ndaw dañ leen waajal ba ngeen dooni kilifa donc ñu ngi leen di ñaan ngeen déglu ñu waajal ñu dooni kilifa ndax yàlla dogal na dëkk tamit ah kilifa kilifa di nga dem de ah waaw waaw mais nag yéen a ngi xool ne dem léegi amul ndaw amul xale donc man Ibrahima Sylla damay dellu yëpp si diine lii tax ñu daje fi mooy lenn la ñun yoofu lañ nekk yàlla dogal na dëkkab diine la waaye damay partagé yéen du dama ne dama jàngade waaye waxkat bi nee na baax baax lu ba baax moo gën bon bon lu ba bon man dama ne samay waajur lu tax may wax si man dama ne ku nekk xam nga sa boppa na ku nekk wax si boppam seetlu boppam yéen ndaw ñi lii laay wax ah bàmmeel amul xale amul mag de man de loolu laay fàttali sama gars yi ma ne bu football jotee ah ma taar su may morom man ñu ma séddee ñu ngi may wax ñu ngi ah bu jotee man ñu ma séddee xam nga lu tax dama ne quand on a on peut tout supporter yàlla moo ne téere bi lépp a ngi si ma ne demal taalif ab waykat nga xoolal yàlla ni muy riimee bismillahi rahmaani rahim qul auzu bi rabbil naas maliki naas illahi naas manoon na kaa tëgg mais da leen wan ne maa leen gën a doon ab kon def leen nànk lépp ngi si téere bi moo tax man mi organisation internationale bi ma formé dañ na ma jàngil musique mana ne mën naa ko ba pare parce que jàng naa alxuraan alxuraan le grand artiste yàlla la dem déglu na mu taalifee téere ba moo tax ndaw ñu xool leen bu baax fi ngeen di jaar est-ce que xam ngeen fi leen si noonu di xaar ndaw war na bëri jaar-jaar ngeen mën ko doy ma yile ñaar baar ax bàkkaar sama na ma ey Ibrahima Sylla jugal dóori waar xanaa xamoo sa mu ngi lay xaar bul mas a ñàkk lu mu tar ndax bés dina nga far lu tax ma wax ka maa ngi koy tëj dañu dellu si diine waa aaya bi dama koy bañ a wax juum waaye yàlla nee na lan mënoo leen dunda saa mettit waaye la la si teg inna allaha ma sabirin waa léegi dama koy tënk gars yi buñ ne yoof am ngeen waa kër laayan est-ce gis ngeen ka santa laay ka sonta sonna si dëkk bi ah gars yi ngeen ka santa si sonna ñoo daa xa dawal oto ya yi est-ce que gis ngeen ka santa mbàkke sonna est-ce que gis ngeen ka santa ña sonna lu tax ndaw ñu ne si ñu lañ jokk ba pare sonna waaye nañ xoolaat xool bi

bon am fierté bu hein. c'est une très grande fierté je pense que Ibrahima du ko euh, féliciter dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal Euh ah ñun day am nañ yaakaar bu baax ci mom. parce que ab bu deug deug deug day xam bopam. xam sa bop nak du génn ci mbedd mi fëgg sab dënn ne yaa gën ñi si des mais da ngay xam ne yow ci ay valeur la ñu la jure ci ay valeur la ñu la mooñe ci ay valeur la ñu la yare ci ay valeur nga war a dox donc Ibrahima duñ la féliciter duñ la tàccu mais dañ lay ñaanal buñ ko waxee yow nag si yow lañ koy jaarale comme ni ñuy def sànq si suñu ndijaay njaay jaañ pour que xale yoofu yëpp li ñuy liñ leen di gërëme ñu teg ci loxo moom mi parce que diñ na ci porté porter drapeau boobu yàlla nattu nañu dina diisoog ñun dina waxtaan ak ñun ba keroog rek Ablaye yaa ci yem yaa ñu seede humilité bi muy àndal humilité te bari na si ñun ñoo xam ne bi ñu yoree ay atam li mu man mënuñu ko il faut être modeste te bañ rek moytu ne ab xale la rek waa bu tax bu nikk ki sa kanam nga ne kii ab xale la rek dëggaate dem sa yoon loolu baaxul at yi mu am bare na ñu ñuy tudda tey ci ay kilifa ay référence bii ñu amee at yi mu am mën nañu woon li mu man su ma nee mën nag waxuma affaire xam-xama mais man jikko laay wax ci woyof ci joxe cër ci humble humble humilité mën a joxe cër loolu ma bañ ci sori ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla gën a leeral yoon wi ba nga xam ne boo gisee ñu soppoon nga teew fii xamoon nañ ne lii am na loo ci war a mën a liggéey loolu mu wax noonu poste boobu ñu ko jox mu koy dox ci turu ndaw yi mais loolu moo gën gaaw dégg naa fii sànq ñu ne nañu jël ay ndaw dugal leen ci parce que am na fon bu ñu fa tolloo ndaw ak ndaw moo gën a max ndaw moo gën a mën a wax ak moroomam am na fon bu ñu fa tolloo jigéen moo gën a mën a wax ak ndaw mais moom mii bokk na ci xale yi nga xam ne wax dëgg yàlla war nañu mën a wax ak ndaw yi en tout cas ñu ngi lay sant la gërëm très rapidement dañuy jox kàddu gi Issa am na lu am solo lu mu ñu war a wax. maa ngi leen di nuyuwaat am na c'est c'est pas du tout facile jël la parole après après Ibrahima mu fallait me donner la parole avant moom comme sa parce que yi mo wara wax yëpp wax na ko wax na sax yeneen yi ma waroon wax suba ak gannaaw suba ak yëpp avec la manière vraiment je te remercie et puis je te félicite euh, man c'est man c'est vrai xamuma turam mais mais comme li nga wax ci moom ni koy seede dafay dox ci mba ci ci tali dox beneen pan bi nga dox beneen pan bi mu jéggi tali ñëw fekk nuyu la jox la loxo dem loolu moom mas naa mën naa ko seede ci moom te wax dëgg yàlla xawma sax turam ah donc c'est la deuxième fois ma gis ko ci rencontre il y a deux ans bi def l'atelier sur euh, les daara moo doon ñëw di wax ne ñëppay yalwaan yéen ñii sax da ngeen di yalwaan <laughs> donc c'est la deuxième fois ma gis ko vraiment maa ngi lay maa lay remercier bu baax a c'est vrai que xam naa temps bi dina gàtt parce que euh, waroon naa ñëw ci conclusion wu groupe génne groupe bu nek li nga génne peut-être problème mu formulation parce que bu ngeen setlo bu ngeen setlo ñetti groupe yi kenn bokul ni nga présenté ñi dañuy indi arbre à solution ñi indi approche bo xamné ne dañu génne les problèmes génné solution ñi nga xamné ñom dañu lister un ensemble de problèmes problème bu nek ñu indil que solution donc dina jéem def travail pour consolider trois groupes yëpp li ñu def ci benn document mu nek plan d'action ou atelier bi parce que atelier bo gis dañ lay wax livrable bi lan la c'est-à-dire lan la ñuy xaar ci atelier bu bu paré ndax rapport rek la ñuy raaj wala plan d'action wala plan de restitution bo xamante ne bu ñu demee dañuy def ay restitution ci ki wala lanen ak lanen li ñu approche bi amone une présentation PowerPoint nous ñu un tey pour ñeu def ko mais finalement dama wo président su ma ne ko mu woo ma l'approche Maneko, ne ko nous ñu animer sen bopp atelier idée yi nga bëgg wax bo boo moytuwul mo nek ci présentation bi nga néron wax amna un document de référence bu ñuy wax la stratégie nationale de la protection de l'enfant amna schéma bi amna rôle et responsabilité des membres am mission am vision Je vais ñu def ci 17 parce que je crois que 17 quartiers le ma président Diène quartier bu nekk nga am léegi CQPE bi ngeen xam lan la ñuy xaar ci CQPE comme defal nañ leen formation a amul action peut-être bu vous avez document ah parce que wax nañu ci kii bi ne CQPE bi mois bu nekk dafa réunir au moins mais réunion lu koy firnde liste de présence euh, PV est-ce que secrétaire bi nek ci SECUPE ba man na bind PV bu laajee ñu accompagner ñu accompagner genre action yoyu lañu doon xaar né par exemple li tax SECUPE bi doxul parce que amuñu fuñu réunion yi lu tax SECUPE bi doxul parce que y a le groupe 2 bo xamné limu wax nee link lien bi wara am entre niveau commune ak niveau quartier dafa casser

lolou c'est pour un peu euh, wax len xam nga protection ñetti tank la am moy prévention ar bala dara di am beneen bi promotion manam noy jaayé promotion noy noy jaayé protection beneen bi moy prise en charge légui bi ma ni di di wax da ngay dégg ay problème prise en charge parce que par exemple aram li mu fi problème prise en charge nous mais une organisation BOUIDEF, prévention la promotion rek Les léegi ñetti ñetti euh, protection yoy prévention état ou Sénégal nous avons ko service bu ñuy action sociale mu dépendre du ministère de la santé promotion mu Denk service bu ñuy service développement communautaire ñu rattaché ko ministère du développement ministère de la femme et de la famille fofu lañ ko rattaché won mais légui gis ngeen né ministre développement communautaire dafa am ñom légui rattaché nañ leen ci ministère développement communautaire donc moy service développement communautaire euh, département bu nek am nga ci ben prise en charge service bi ko euh, état le ci walu protection moy lu ñuy dakaar mooy mooy département bi am ñaari AEMO benn AEMO bi biir tribunal la nekk tribunal nag nit yi dañ koo ragal am na ñoo xam ne euh, bëgguñoo dem tribunal am na AEMO bu nekk Grand Dakar bu amee ay cas yu demee noonu mais ñun ñu ngi liggéey ak service yooyu bu ngeen créer cadre bu ngeen am cas yoo xam ne dafa war a dem AEMO dafa war a dem action sociale wala développement communautaire na ngeen ko tënk rek dajale jox président as mu jox ma ngeen dem toog comme ni ñu ko waxee ci wàllu jàng parce que yaa ngi wax kaaw ah, xale yu amul kayitu judd président Ndoye mu ngi nii sànq l'année dernière dañu ñëw toog suñu inspection inspection de l'éducation de la formation cinq lañ ci amal partenariat protocole loo xam dañu bind engagement ñu ne leen képp ku am xale buy jàng te ne war a def examen ci département yi ñuy liggéeyee te amoo kayitu juddu indil ñu ñooy fay lépp

ak délégué de quartier yi ak bàjjenu gox yi ak yépp wax leen problème état civil boo ko bëggee régler nooy def loolu lañu mën mënuñu leneen mënuñu leneen parce que aussi dafay nekk yoo xam ne parfois quand tu explique les gens peut-être dañu lay wax ne la non est-ce que nit yi xam nañu mu ne li ñu mën ci wax ñu ngi wax man nag mënuma yenu micro si sama liggéeyukaay yenu ko sama kër yenu ko ci mbedd bu yàggee ñu ne la yow da nga lenn rek nga cadre yu mel nii nga wax ak nit comme ni ko importance man dama dem atelier sur la protection de l'enfant ci table bi ma le délégué de quartier bi ñëw ne ko yow sama kaay yi ma la wax yi ñooñu dañu xam service yooyu de waaye yoo fii ñen ñoo xam luy AMO action sociale xamuñu ko service développement communautaire xamuñu ko te service yooyu ñoo yor wàllu protection de l'enfant bu ngeen bëggee mën naa woo ñetti service yooyu maa ngi naan man duma ma suñu organisation mën na woo ñetti service yooyu ñu def atelier ñu ñëw toog fii ku nekk wax leen ñoom lan la ñuy liggéey luy seen rôle nan ngeen di def pour jot ci moom nan ngeen di def fan la ñu nekk ci Dakar comme ça ñu le lien bi ak ñun ak yeen ñom ak yeen ku ci am régler si vous voulez on peut inscrire ça dans le plan d'action tout de suite on peut le faire parce que ñun spécialité bi ñu nous ñun duñu def prise en charge mais xalé yi un cadre yu état créé pour ñu am prise en charge dafa am lu ñuy OGP ordonnance de garde provisoire ay moyens ñoo koy joxe mais loolu boo demee yenn école yu mel ni centre sauvegarde bu Pikine Guédiawaye école la boo xam ne xale yi nga xam ne dañoo xaw a té xaw a lëj euh, doo ma ne Yoff amul xale bu lëj nga xale yoo xam ne dañuy toog wenn saay da nga ko war a dénk mais hmm? loolu xale yi ñuy def sous OGP euh, euh, ay moyens yi mooy joxe kayit bi fi kan mo fi massa a wuti ji OGP xamuloko te service yi c'est un service état la c'est gratuit ñom lolu ñoy seen liggéey vraiment ñun loolu lañuy man li nga xamné mo fi génn ci ay demande ma wax len président wax na ma depuis deux ans néma xawma école de football yi école de football yi école de football yi je vois que c'est revenu Vous leen neexee deux jours d'affilée yu d'ici le 20 ñu faire un atelier de formation sur la protection de l'enfant quel que soit le nombre jeex na jarul ngeen di ñëw nombre yi nga ñi ñi nga war a former eh, ñu liste yi nombre wax personnes ku ci un âge yi ñu am ñu deux jours d'affilée ñu wut ku leen former léegi ñu former leen fii mu bépp organisation buy yëngatu ci wàllu xale nga soxla ku la former ñun on est prêt à les former ñun loolu lañ mën mënuñu leneen exploitant de plage yeeg jaaykat yeeg xam nga la xam nga j'ai dit ce matin que ne on a formé 300 enseignants à raison de 50 enseignants par par IF mais bi ñuy former kii di gardien yi di nekk ci école yi ñii di raxas toilette école yi ñii di bokk ci comité de gestion école yi ñii di jaay ci école yi ñooñu ay acteurs école lañ l'année dernière on a arrêté de travailler avec une école parce que dafa am ku nekk ci biir école ba di abuser xale bu jigéen ba yàlla def li muy def ñu arrêté fa intervenir ñu ne leen lépp lu daan def école bi arrêté parce que nous jël xaalisu organisation ne damay euh, promouvoir protection de l'enfant. école ya may def lépp li ma man ci wàllu protection de l'enfant. mu am yu fay am je le fais pas excusez-moi je bi c'est pas pas ma personne C'est notre organisation vraiment yu demee noonu man de toute façon li tax ma ma bëggoon qui bi atelier bi parce que je veux que nous ñu jéem j'ai senti que y avait une cible de 43 personnes dans les dans les termes de référence il y a une trentaine de personnes on a 12 personnes de moins voilà peut-être mais man le nombre c'est vrai que nous évalué évaluer ci nombre bi aussi

bi ñuy commandé añ bi dañu commandé pour 43 personnes 31 personnes ñoo fi nekk 12 ñi ci dess ñep anañu voilà xam nga mënuñu ka lekk ñun yóbbu ko donc déjà lolu xaliss la bo xamné mënon na servir ak benen atelier euh, ndekili 43 lañ fi tégon mais ben dessul te 12 ñewuñu <laughs> hein? donc ñu bàyyi xel ci yooyu vraiment action yi comme ni ngeen ko waxee relevé na yu bëri relevé na yu Euh, j'avais prévu de faire une présentation Jaruko comme président nee ne problème mu temps dafa am mais cadre de concertation yi ngeen wax Li lu bees la idée bi cadre de concertation ne léegi s'occuper yi soxlawuñu sax ay communes ak yooyu yéen yéen a bëgg di daje di waxtaane am cadre de concertation boo xam ne day nekk entre le CCPE ak ak CQPE yi xaw nu mu war a tudd jarul woote ngénte di ko wutal tur léegi na existé ngeen xool le contenu lan lay jariñ pour lan la parce que ce matin dégg naa euh, président bi mu doon wax sànq mu ne am nañ ay cas c'est que cas yi demul donc cas yooyu ngeen ne dañuy créer cadre boo xam dañuy recenser cas yi chaque mois na ku nekk indi cas yi mu am yépp ñu def ko ne ñun lii la ñu liggéey ci période bi kii daal di wax ne man kaatel bi ma ko amee nii laa ko réglé kii ne ah, d'accord cas boobu euh, maa ko doon dégg sama fële donc bu ma demee dinaa wut solution amul problème on on est prêt pour accompagner ce cadre là amul benn problème ñun daal vraiment euh, volonté accompagner mon ami ko mais tamit nit ki mënuloo def lu mu lu wees li ñuy wax affaire état civil yi aussi état civil xale warul mën ñak def examen parce que amul pièce état civil droit am la alsan ang ngi la dégg sànq nga xale bi am na noo xam ne l'année dernière bi examen yi jege le directeur des examens et concours dafa ñëw wax nombre xale yi amul kayitu juddu Sénégal bi mu waxee dama xëyaat ma laaj sama collègue bi ma ne ko moom nombre de candidats yi la wax wala nombre yi nga xam ne amul kayitu judd mu ne ma ñii amul kayitu judd ñooñu daanaka dafa mel ni nga euh, tànn yoof yëpp kenn amul kayitu judd finalement lan wax def après ñu régulariser c'est comme ça qu'on a fait donc il faut pas il faut pas mais da ngeen di bu ngeen déglu examen parce que amul ngeen dem laaj directeur directeur bi laaj IF bi IF ko yoon bu muy pour bi c'est comme ça qu'il faut parce que cadre yi parce que il faut di solution à la télé le préfet de le le préfet de convoqué tous les acteurs de l'éducation au niveau du département de Guédiaway wo président tribunal bi avons dama bëgg nga ñeenti semaine moo ci des ñu def examen nan nga ma mën a dimbalee pour ñu am kayit président tribunal nag nekk dinaa defar ay audience spéciale pour ñoom mu ne mu toog mu ne IEF bi ñoom ñëpp demal rassembler seen dossier nga indil ma ko mu ne ma yow pencum Dakar looy wax ma ne ko lépp luñ siy fay ñun ñoo koy fay 192 enfants yu waroon def examen euh, euh, bi ñuy dem de defi ji seen ont c'est un droit Les bi dafa war a am këyitu aussi ces déclarations yi ngeen di ci bàyyi xel yu bari am na yu ngeen di def parfois ci déclarations xale yi day top. xale bi ba Laissez-les leen ci xel y a des ay pratiques yoo xamante parce que l'année dernière première fois ñu def atelier bi ñuy wax ci walu protection de l'enfant dañu tok ci salle bi bi ñu toogee ci salle bi juge bi xam nga rek nit ñi boy wax wax wax mu am ku yëkkati juge bi ne ñoñu ñooñu ñëpp dañ leen waron tej juge bi ne bu ma warona tej ñi nga xamne mas nañu am problème état civil yëpp boo moytuwul salle bi kenn du fi dess ba man mi sax boo moytuwul dinaa dugalé

boo ko defee mën nañ la cee tëj atelier boobu ñu defoon nag ak juge bi bi mu ñëwee loolu la leen doon xamal ne pour ngeen moytu yu leen ñaata nit ñoo am problème mu état civil ñëw euh, tëj leen état civil rek moo leen dugal prison yëpp ñàkk a xam wallu wàllu affaire kayit di lu ay problème yu baree ngi ci

Euh, mom la jaat pour que yoon bañ la yoon a fi yooyu yëpp nag ay thème la yoo xam ne mën ngeen ko waxtaane si seen CQP yi ne nañ dem sensibiliser ñit ñi ñun bu ngeen waree sensibiliser lépp lu mu laaj comme accompagnement amna na ay action yoo xamante ne laajul xaalis tok waxtaan ak nit ñi pour wax leen ne léegi nan la ñuy inscrire xale kayitu juddu loolu jar na budget jarul budget donc vraiment la protection mi ngi aussi préciser nous, yéen xam nga euh, faral di wax protection transversale Nous avons une protection spécifique si nous. une ñun suñu protection dañ ko limité si violence abus négligence exploitation parce que sànq bo waxé nga santé sax protection la environnement sax protection la ak yoy ñun suñu protection ci walu le lañ ko gëna gëna accès parce que lolu lañ sét né mo gëna sonal xale violence bi toute forme de violence xoolal légui violence bi yof violence bi dafa hmm, tu vois la violence maintenant toute forme de violence

mu ne ah mu ne waaw mu ne ko ma man nga ma yóbbu foofu ma gis xale yi mu ñëw man ma ànd ak moom directeur des programme ak koo xam ne moo yor programme yi au, niveau international ñu ñëw fii ci tefes gi na benn mbaaru ngaañ boo demee ci kanam noonu mu ñëw fekk xale bi ay timis mu ñëw fekk xale bi mu ne ko yow eh, dem géej xale bi ne ko waaw man maa doon tekki wolof mu ne ko yow ñaata at nga am ko 13 14 ans kii mu ne ko da ngay dem ba si biir biir mu ne ko waaw mu ne ko waa yow lu tax jàngiwoo ngay dem géej mu ne ko baa xamoon baa xamoon li am si géej gi nga bàyyi sab liggéey ñëw si géej man man man man man maa doon traduire loolu donc sa association bi war ngeen liggéey ci âge xalé yi ñuy yobbu en haute mer loolu rek déjà piste la pour que nit kuy wara def nga xam lan li ndax yow euh, defar mo la si jublu mais est-ce que du loraange ngay indi xam nga wax nga sa kufa yi nga daan tak man xamé woon naa temps yi xale dama defoon du yow du yaay rakku paab ak dama defoon ne du yow donc te yàlla def na ne yoof am nañu mérite yoo xam ne vraiment mën nañ leen di cité man euh, dafa am benn nit boo xam dafa doon toog benn jour mu ne ma yéen yoof est-ce que vous rendez compte que am na benn moment daanaka état wu Sénégal li fi gën a sensible yéen lañ ko jox ma ne ko si mu ne directeur police nationale directeur des douanes yoof lañ ko joxoon ancien détention ñooñu demuñu woon géej de amuñu woon ku fa de moo leen tax a nekk directeur des douanes directeur police nañuy xool ci ñooñu comme ay exemple am na yeneen exemple yu bëri yu fi nekk vraiment di leen damay bañ a guddal mais dinaa def rapport bi jox ko président wax ko ne ko lii laa jàpp ne moo fi génn bu amee luñ ci yokk ñu yokk ci en tout cas saa yu ngeen bëggaatee ñu rencontrer mais aussi rencontrer après des am sinon c'est toujours des réunions de Boba dafay nekk la nga reproché et sénégalais yi ci ben atelier international Nous, ne leen Sénégal, Sénégal euh, séminaire yi wara a régler problème développement monde du billet def définir ko ba pare ñun Burkina Faso dañuy dem fait foofu jël un séminaire nous lañ fa une ci conclusion avec dem appliquer ñu wax ko représentant Sénégal bi mu ne waa d'accord bu ñu demee dinañ organiser séminaire pour wax ñi ñi ñu wàññi séminaire yi beneen séminaire encore donc vraiment waxtaan yi day am benn moment faw ñu arrêté ñu dem sur le terrain te ñun vraiment ci terrain lañ xam ci terrain la ñuy liggéey ci terrain la ñuy kii maa ngi leen di excusé wu bu fekkee gudd na fekkee wax bu aussi amna lu ci ki maa ngi leen di jégalu di leen ñaanal merci beaucoup la prochaine waaw. ça jërëjëf vraiment merci beaucoup je pense que euh, regretté wuñu li taxone ñu initier cette rencontre ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ci ni nga taxawoo ci suñu association bi di Jàmmalaay Yoff au niveau de Pencum Ndakaaru wax dëgg yàlla moom lay jokkal ci préparation bi planification bi bi, daf ma ko wax téléphone rek mané ko nañ jël le mercredi parce que buñ ko wajé rek duñ ci génn mu dal ñu ci jappalé xat-xat ci nek yépp ñu seere ko bon aussi vous avez accepté malgré xatoon yeen yéen ñëpp ngeen def souplesse di gërëm bu baax ah Issa ci ni ngeen ñu accompagner ci processus bi parce que ben instant xatoon di gërëm bu baax mairie bi à travers Mamadou Mbeng karach euh, ci ni mu yabalé Fatou Ndoy mam lañu yabal mu ñew fi maire bi retenir rek ah, ah, Claudette tu sais que nous nous excusons d'avoir travaillé en grande partie à partir de la langue wolof mais ce qui a été dit c'est vraiment ce que vous avez observé il y a eu un consensus sur un certain nombre de problèmes qui ont été mentionnés sur le tableau. Un certain nombre de pistes ont été proposées pour exploration afin de trouver des solutions durables. Et ISA va nous proposer un draft de plan de plan d'action sur la base des notes qui ont été prises. Et en même temps aussi, il nous a fait un certain nombre de propositions sur lesquelles je voudrais revenir. Vous allez me permettre de terminer en français pour la prendre en charge. Issa tu nous as proposé un cadre Nengedal. si jamais nous constatons des cas des problèmes en matière d'état civil et autres qu'on les rassemble et qu'on puisse te les transmettre afin que tu nous assistes dans la résolution de ces cas je pense avoir discuté avec Abdoulaye Silla de Dagoudan sur des cas similaires si jamais parmi l'assistance ou bien ceux qui vont suivre à travers Yoff Mbolo TV ils ont recensé des cas de ce genre, qu'ils nous les fassent parvenir afin de les transmettre à Issa, afin que nous puissions ensemble trouver une solution durable. Issa nous a proposé, quand je dis Issa, c'est la fédération, hein. on, va, on, va, on, va, le ménager un peu, nous a proposé une rencontre avec AMO, avec euh, le développement communautaire et l'action sociale, ici même à IOF. Ensuite, aux écoles de football, le plaidoyer a été long, mais merci Issa d'avoir accédé à la demande de choisir deux jours d'affilée pour une formation pour les responsables des écoles de football. Je pense qu'il y a au moins 13 écoles de football qui sont opérationnelles, à ma connaissance. Peut-être que ça a évolué. Et que tout à l'heure, Claude Daour a dit une chose très importante, c'est que pratiquement chaque quartier a une école de football. C'est un clin d'œil au comité de gestion pour qu'ils puissent quand même intégrer ces écoles de football dans l'exercice quotidien, n'est-ce pas, de la protection des droits de l'enfant au niveau des quartiers. Il y a aussi les exploitants de plages, parce que bientôt, Yoff est une commune littorale. Bientôt les grandes vacances. Et même en dehors des grandes vacances, les jeunes Yoffois passent l'essentiel de leur temps au niveau de l'espace littoral. Et on a la chance d'avoir des surveillants de baignade, des exploitants de plage, qui méritent, je pense quand même, au même titre que les, responsables des écoles de football. En tout cas, c'est une cible préférentielle pour la commune d'Ayof. Et pour le cadre de concertation entre, pour pallier au, au, défaut de communication entre les CQPE et les comités de gestion et le CCPE, nous offrons, nous, Djamalayof, notre siège. C'est un, un, cadre idéal, je pense, pour abriter ces gens de rencontres. C'est pourquoi je ne sais pas, je voudrais proposer pour accord de principe qu'on programme une autre séance qui sera le prétexte pour rencontrer AEMO, le développement communautaire et l'action sociale. Et, au même moment, ce jour-là va nous servir d'appréciation pour le draft de plan d'action que Issa va nous proposer sur la base de ce qui a été dit aujourd'hui. On combine les deux à la fois. On va rencontrer AEMO, le développement communautaire et l'action sociale, pour des échanges sur certaines questions qui ont été soulevées ça et là. Et le même jour, nous aurons l'occasion d'apprécier le draft du plan d'action qui, qui sera formulé sur la base de ce qui a été dit tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, le temps ne nous, ne nous permettra pas de reformuler, parce que ce qui était important pour nous, c'était de faire sortir les idées de fond. Maintenant, il y aura un travail de toilettage, de reformulation et de mise en cohérence dans le cadre d'un plan d'action. Ce draft nous sera proposé lors de cette rencontre et nous aurons aussi à rencontrer les responsables de l'AMO, développement communautaire et de l'action sociale. Est-ce que cela vous convient C'est bon Voilà, donc voilà ce que je pourrais proposer. Maintenant, je vais, je vais faire le suivi avec les écoles de football, n'est-ce pas Pour le choix des deux jours, mais avant le 20. Hein, Moussa Daour. Donc vraiment, Malik, il faut qu'on y travaille très rapidement. Les listes, les responsables, les coordonnées, et qu'on choisisse. On peut le faire même avant de quitter hein, aujourd'hui, le choix. Comme ça, le plus rapidement possible, on va faire les TDR et envoyer à qui de droit. loolu là, à mon don, ko wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu taxawaay bi di ñaan yàlla li ñu fiy taataan yàlla na ko yàlla barkeel lépp luñ ci yaakaar ci lu ci am lu romb suñuy njort di gërëm rek di ñaan di ñaan tonton Ndiaye Diagne avant muy jël kàddu gi ñu jox gi fatu Thiaw parce que moom le maire bi désigné bi ñuy tàmbali liggéey bi xamuñu woon parce que moom dafa nekk responsable avec loolu la fi tey woon mais ci biir jotay bi lañu jot kayit gu jóge maire yi wane ne moom lañ fi mom lañ fi yabal commune bi mu daldi jël cadeau bi wax au nom de l'institution municipale su paré nak ñu jox cadeau gi alors suñu ndijay Njaay Jaañ euh, mu defal ñu ñaan mu tejeul ñu defal ñu ñaan ñu lever la séance. pour ñu wax ci atelier bi tay ak ci Yoff fait le euh, président il est dispo nous hein? ñu dem def émission sur Africa 7 à partir de 18 h à 19 h on a une heure d'antenne pour ñu mun a ci ci ci protection de l'enfance euh, maanaam problème yi mu am salam salaamaaleykum mbooloo mi ma ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tour ak sa sant di rafet lu jotta jotaay bi. avant tout di joxe excuse u Papa Kara parce que moom moo waroon a teew fii invitation bi tey si suba la ma ko jox avant bu fekk na as faire na ma paar ma di ko remercier tam si loolu di wax ne tamit liggéey bi ngeen di liggéey nii yëpp amaana ba xëy na lépp commune bi moo ko waroon a liggéey kon boo leen kët jëlee di ko def en notre place dañ leen siy remercier bu baax mën nag dama nekk nit koo xamante ne toujours dama koy wax

wala déet man je propose que maire konte mom amul jot ñu insister si mu am ben représentant bo xamante ni mom moom koy désigner bopam personnellement pour may mëna assister li parce que man Papa Kara rek momay désigner ma ñew fi tok suma paré damay jëlé info yi fi donné, yi dem jox ko Papa Kara maire nak moy exécutif principal bi te lii day mbir moo xamante ne pour man bu ñuy wax protection de l'enfant dafa war a dox waruñu ko wax nii rek tënk ko teg ko ci table déedéet buñ jogee fii comme li ñu wax fii nii yëpp avant Issa di def rapport sax pour man ñun war nañu mën a commencé parce que travail bi yëpp c'est un travail de terrain ci quartier yi la quartier yi il faut ñu liggéey li ñu war a xamante ne nii moom la ñu war a liggéey waxoon naa ko fi bu ñu désigné ay nit yoo xamante ni tamit dañ bëgg a titre rek nome ma nommé ma ñu nommé la ba pare nga tëdd sa kër te doo ko liggéey ça ne servira à du dem fen il faut tamit ñi nga xamante ne nii ñooñu lañ nommé pour man ñoom tamit ñu dem xooli leen ba xam lan mooy seen problème principal bu fekkente ne ñoom mënuñu doxale loolu moo xamante ne si comité de quartier yi lañ nekk délégué de quartier yaa ngi fi ñu xool ñeneen ñoo xamante ne nii mën nañ liggéey bi à leur place ñu teg fa ñoo xamante ne leer nañu ne li ñu sumba ni dinañ ko doxal mais buñ defaatee rapport bi tamit ñëwaat toogaat fii defaat ay formation formation te ñooñu xamuñu euh, rôle yi xamuñu responsabilité yi mbir mi tamit day takk kon pour man daal grosso modo loolu laa si mënoon a wax di remercier bu baax ñuy toog ci table bi yëpp ah je vous remercie beaucoup di leen wax ne sant naa gërëm naa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 population bi euh, ndax population bi euh, xale yaa ngi ci biir parent yaa ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir euh, kon nag ñëpp a ciy jariñu yàlla jàppale ba ñu matal ko ñu jàng faati yox salaatul faati ayatul kursi yu salaatul faati tëjee ko tëjee ko salaatul faati adiyal ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam auzu billahi mina sheytaani rajim